patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam dañu am fayda dañu am fayda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 patron tuddul Sidy Lamine Niass tuddul keneen tuddul keneen c'est le peuple sénégalais c'est lui qui vous paie mooy ki leen di jëmale kanam mbokk yi jërë ngeen euh, jëf ci ànd bi ngeen di ànd euh, Walf TV la voix de sans voix ñu leen di dalal ak jàmm euh, ci moment de vérité muy un rendez de Walf Net et de Walf TV. ñu fas ko yéene jamono ju june ñuy ànd ak yéen ak ñenn ci kàngam yi nga xam ne ñoom la ñuy nemmeeku euh, ci géopolitique bu Sénégal bi de di waxtaane ñoom di waxtaan ak ñoom ci actualité réewum Sénégal euh, maa ngi gis ne ñu bari ci yéen sax commencé nañ déjà di ànd ak ñun sur la chaîne YouTube Walfadjri TV nga xam ne fa la ñuy diffuser également euh, ce ce rendez-vous de la vérité di leen xamal également niñ ko defee woon di gee di weesu suñu ko jot gi may incha allah dañ fexe ñëpp ñi nga xam ne am nañ ay laaj yu lëkkale suñu gan gi tey euh, ñu def ko à travers la page YouTube de Walfadjri euh, laaj yooyu le dinañ leen ko yeggee yeggee ko suñu gan mu mën cee tontu Sénégal toll ci benn jamono boo xam ne dafa soxla jamono waxante dëgg li ko waral mooy dañoo jëm ci élection présidentielle yoo xam ne ba léegi xamaguñu ban bés lañ ko war a def moonte day jàppoon nañ le 25 février njiitu réew mi président de la république moo Macky Sall wax ne élection yi du mën na am ci jamono joojule jëloon sax benn décret jëmale ko ci assemblée nationale également daje woon ba woote ne élection yooyu dinañ ko amal le 15 décembre 2024 waaye nag conseil constitutionnel bi nga xamee ne ay député dañ ne ko d'accord ci ci la daa di lankal président Macky Sall bëggam boobu boobule moom président Macky Sall sax xam le ne dina tënku ci la conseil constitutionnel bëgg ngir fexe ba élection yooyu la ñu ameel ko euh, ci diir bi gën a gàtt maanaam dans les meilleurs délais possibles loolu la conseil bi sàkku ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje gi ñu ci yore ci ñoom ne li ñuy sàkku mooy 2 avril président Macky Sall mu joxe nguur gi ka nga xam ne moom moo ko war a wut loolu nag ngir mu mën a am il faut que élection présidentielle yi premier tour ak deuxième tour bu fekkee da caa war a am mu xaj ci weeru mars bi nga xam ne moom la ñu jëm si moom la ñu jëm nan la ñu mën a régler mbir moomu lee waaye tamit nan la def ngir lépp am ci ak dal laa yi bokk na ci li ñu nar a séddoo tey ak suñu gan muy El Hadji Malick Ndiaye ñu koy wax El Malick njaay bokk ci parti bi ñu tuddee PASTEF wala ex PASTEF moom sax mooy secrétaire national à la communication bu parti boobule bokk kon ci coalition bii di Diomaye président El Malick maa ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci émission bii di moment de vérité. jërëjëf sëñ Moustapha. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam. maa ngi nuyu mbooleem téléspectateur ak téléspectatrice yu Walf TV. di door ci samay kàddu euh, di leen jaale. Mhm. ci tiis wi fi xew euh, mu dal ci suñu. jàmbaar jooju di Pape Sané Pape Sané ñi ñaan yàlla rek soxnaam soosu wuy ju boromam yàlla xaare ko aljanna amiin eh, yërëm ko jéggal ko eh, di nuyu mbooleem sénégalais yi di ci jiital sama tunnu jolof yi jolof jolof nga di leen ziar bu baax a baax <laughs> waaye yow ay dëkkandoo lañ boole waa waa njàmbur mm-hmm. eh, di nuyu mbooleem kilifa diine yi nekk ci biir réew mi ak kilifa aada yi di ñaan yàlla lépp loo xam ne waxtaan nañ ko fi rek mu doon njëriñal askan bi jërëjëf alors di fàttali ñuy seetaan wax naa ko sànq que ni euh, mën nañu dem euh, sur la page Facebook euh, YouTube Walfadjri TV ñuy seetaan émission bi mais également su fekkee am na laaj yu ñu war a laaj El Malick te dégguñu ñu ñu laaj ko ko suñ ko ko bindee incha allah dinañ fexe fii ak émission bi di jeex ñu yeggee ko ko mais balay boobu El Malick cette émission là c' est ñu tuddee ko de vérité est ce que du ma ne waatal mais mën nga jël engagement. que ni durant waxtu wi ngay nekk ak ñun doo fi wax lu dul la vérité tout la vérité et rien que la vérité. dinaa jël engagement doon El Hadj Malick bi ma mës a doon. incha allah incha allah alors euh, El Hadj euh, jamono ji semaine bi en tout cas ñaar wala ñetti fan yi li ñu seetlu ci Sénégal mooy surtout ci yéen ay kanam yu belli li ko waral mooy ñu bari ñu nu jàppoon euh, ñu ne ci waa Pastef la ñu bokk ñu ngi bokk di leen di bàyyi alors yow ci ñuy jàpp nga bokk da ngay takk bracelet électronique est-ce que libéré nañ la ci diggante bi. waa li may wax mooy ñun suñu kanam yaakaar naa ne ba mu bellee yàgg na <laughs> ndax dañoo tooñ tooñar bi ñu. Mhm. jaay ñu doole waaye ñi ñu ko def ñooy walbatiku di mer ñun ñu nekk ci mbégte. Mhm. ndax dañu jàpp ne eh, dañu libre ak fépp fu ñu nekk yaakaar naa ne gis ngeen ñi génn eh, ci ci état d'esprit bi ñu nekk. Mhm. mooy wane ne eh, buñ la tëjee ci lu dul yoon yow ci sa bopp ci sa conscience nekkoo ci kaso te kaso conscience mooy bi gën a métti ci kaso yi tëj sa bopp tëj maanaam loo xam ne yow ci sa teeyu bakkan xam nga ne lii lu la lu la sonal la ndax am na benn sentiment de culpabilité booy am bu yàlla dogalee nag loolu yëpp dara amu ci euh, yaakaar naa ne da nga koy dund ak philosophie te doo wane benn signe de faiblesse wala lépp dara luy wane na da nga ci am gàcce wala dara xam nga tey nga dugg kaso génn ñi ah, ñi di di la accueillir di jubilé mhm. nga exilé wu ñibbisi ah, gis naa sax tey benn exilé ñibbisi di la mhm. <laughs> yaakaar naa buñ defoon naka su dul noonu ah, accueil bi du demee noonu man nag sama kaar du ma ciy bëgg di wax mhm. parce que man dama ko jàppee Euh, ngëneel boo xam ne yàlla moo xam li tax mu def ko musuma ko musuma ko ñaxtu musuma ko jàppee musuma ko jàppee nattu wala leneen parce que xëy na su ma takkuloon bracelet mhm. dugg naa ci oto dem jolof ndogal fekk ma ci mbaa ma jël picc mi ne damay tukki ndogal fekk ma ci yàlla moo xam li tax mu def ko te bu ko jeexalee dina ko jeexal. kon ba léegi euh, bi nga ko takkee ba léegi ay weer la mat na at. war a sori ko mars lay mars lay mat at ba léegi génnoo Dakar. Euh, génn naa dakaar ci dem Touba ak Tiwaawan Màggal ak Gàmmu. waaye su ko weesoo. Mhm. Euh, ak ak benn yoon sama barabu liggéeyukaay. donc kër ga liggéeyukaay ba waaw pire ndakaaru laa am droit circuler wax dëgg yàlla. Mhm. am na ñu ma sax gën a metti la ñoo xam ne ñoom kër ga bureau ba la. kër ga bureau ku ci mel ni Waly Diouf Badiane. li Diouf bokk ci seen parti pour un inspecteur principal des impôts. Mhm. liggéey lu bëri ci réew mi indi lu bëri xaalisu réew mi eh, xaalis ci réew mi. Mhm. Euh, présenter toutes les garanties nécessaires ñu teg ko ci ci situation bu mel noonu. Mhm. Euh, donc fi nga xam ne daal xam naa ne sawaruñ ma dem fa moom mooy Jolof. mooy Jolof mais mais li li leer mooy euh, ba léegi yow waxaguñ la dara. parce que xale yi ñu génne ci kaso yi ñu ci bari ñoom dañ naan dañoo ñëw rek nañu jóg leen est-ce que depuis boobu am nga benn écho peut-être bu jóge sa avocat wala quelque chose comme ça wax la ne la euh, mën na am ñu dindi ko wala léegi ñu dindi ko. non non non xam nga man. yàlla dogal na dossier bi ñu ma takkalee bracelet. Mhm. ak beneen dossier audio bi ñaar yëpp entendre nañ ma dans le fond. dans le fond. donc dossier bi soit ñu classé ko sans suite. Mhm. wala ñu yóbbu ko pour jugement. Euh, donc bi ñu ko defee tamit déposé naa demande pour ñu dindi bracelet bi waaye tontooguñu ma. tontooguñu demande kañ euh, xam naa ne léegi mu mat ñaar ñetti weer. ñaar ba ñetti euh, waaye daal li ci am solo mooy fii ñu toll nii ñun lii tënkuñu ci lenn ndax la ñu war a def ñu ngi koy def. la ñu war a wax ñu ngi koy wax. Mhm. lañu ñu war a liggéey ñu ngi koy liggéey. li ci des nag mooy xëy na am na ñeneen. parce que bracelet yi ñun yàlla daf ñu may tur. mais ñin takkal bracelet duñ jeex duñ xaaj. en dehors yow ak Waly Diouf. duñu jeex ay militants Pastef yu bëree bëree bëri yuñ takkal bracelet. du jeex du xaaj sànq bi may ñëw rek am na ku ma yónnee ne ma tam-tam mu ngi koy laaj. Mhm. lu ñu wax ci mbirum bracelet yi parce que doomam bracelet lañ ko takkal. ba léegi. ba léegi. bu ma yaa ngi xam naa ne yaa ma koy gën a gën a xam euh, ku takk bracelet mënoo ko comparer ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi depuis depuis ay mois ñu bari ci ñoom fan yi euh, depuis trois 4 jours ñi ngi commencé di génn seen seen kër yéen ci seen parti est-ce que am ngeen une idée de ñaata ñaata nit la ñu libéré boobu ba léegi. waaw yàlla dogal na ci suñu parti ni ñu organisé woo am nañ comité boo xam ne moom mës di topp. Euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy voilà mhm. détenu yaakaar naa ne am na ku ngeen ci invité récemment euh, mhm. tey xam démb démb mu joxe ci ay ay information yu leer mhm. loolu mooy li am may féliciter équipe boobu di féliciter plateforme chemin de la libération nga xam ne dañ ci def liggéey bu mucc ay détenu yi li muy yàgg-yàgg depuis mille 2022 ba léegi wala 2021 ba léegi ñu ngi leen di topp di leen toppatoo ci fi ñu nekk di leen jox la ñuy soxla waaye di leen di toppatoo seen njaboot kéem kattan. di leen suivre blessé yi ñu ngi leen di topp ci même euh, rythme bi di continuer di leen faj ñi ci soxla protège ñi ci dagg seen loxo seen tànk. ñi ci mhm. soxla chaise roulante ñi ci soxla évacuation bu yàggu rek am na ku ñu évacuer à hauteur à valeur de plus de 17 millions. génn ko réew Mbour faju ji Maroc. ci waa waaw mu ngi fa ñaar lañ xaw ma ñu ngi fa. Mhm. donc loolu noonu yëpp. xaalis bi nga xam ne bu ñu defee fundraising moom la nit ñi di dugal. Mhm. moom la ñu utiliser waat delloo ko askan bi. moo tax euh, dañ leen di jaajëfal ci taxawaay boobu parce que yombul. Mhm. am ci suivi bu mat sëkk. ba tax na ñoom li coow li di bëri bëri euh, bi ñu defee décompte bi def seen statistique. Mhm. ci li ñu wax trois cent cinq personnes moo génnagum. trois cent cinq ñoo génnagum. sur plus de mille. maanaam matagul un tiers bi sax. un tiers donc euh, ñuy en tout cas nañ ko daan yàgg a waxe encore une fois parce que VAR am na VAR négatif am na VAR positif am na mën na am li am solo mooy li ñuy yàgg wax ñun mooy génne ñi ci kaso bi ndax du seen place may firndeel fii ne nag génne bi ñuy génnee ñii ci kaso bi mhm. du c'est sans sans condition aucune parce que loolu la yàgg demandé. ñëw léegi. parce que génn bi wax ji bëri na. y'a beaucoup de questions qui waaw xam nga invité nañ ma fi ci ay télé de la place. Mhm. benn bi mën naa ko citer. allez-y Faram Facce la woon ak Babacar Fall. Mhm. mën nañ ko dem xooli. benn bi 7TV la woon ak Soxna Maymuna ak yeneen yu bëri sax. Mhm. y'a six mois. may wax ni président Macky dafa war a sortir par la grande porte te pour mu génn par la grande porte il faut mu dem vers une pacification mu bañ a topp ci ñi koy buux di ko dugal ci guuta fii amuñu lu ñuy bañee nit kii wala nit kee non non non benn projet lañu yore di ko togg bëgg ko yekk ñu nañu du ngeen ko fi yekkee liberté d'expression ñi kidnappé ko mbir mi weesuwul loolu ci laa doon wax ne li mu war a def weesuwul libérer tous les détenus politiques euh, euh, y compris ñoom euh, Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko entre autres mais tous les détenus politiques organiser ay élections libres transparentes et inclusives dossier président Ousmane Sonko mu taxaw ci ba nga xamante ne nii dinañ jaarale lépp ci yoon ndax ñun biir nañu ne bu ñu jaaralee lépp ci yoon le président Ousmane Sonko day bokk ci élection yi. léegi ñu su loolu amee am naa yaakaar ni décrispation dina am askan wi dinañ mën a dal parce que askan wi tamit loo ci mën di wax askanu Sénégal jàmm moo leen gënal lu ñu am. Mhm. waaye fitna gi ñu leen di teg di rey seeni doom di tëj seeni doom di blessé seen i doom dëkk bi léegi saa yoo xëyee looy njëkk a gis auto policier auto gendarmerie ñuy circuler mu mel ni réew mu nekk ci ger naturellement di gën a tiital les investisseurs et cetera moo tax dëkk bi métti loolu biñ koy wax même président Ousmane Sonko def na ci vidéo biñ mmh. koy wax boobu setee pour éviter situation yi ñu nekk di dund léegi nag xëy na dem na moom ba réaliser que ni loola ñu ko doon wax parce que dama jàpp ne boo yoree nguur wala nga jiitee entreprise wala lu mat di doon bul déglu torop kii ñëw rek naan la yow la yow la di la wax li nga bëgg a dégg mais tes adversaires politiques wala sa opposition bu lay ŋàññ ci dara c'est pour nga def lu gën loo xamante ne nii mooy tax askan wi mën ci gis seen bopp mm-hmm. te bi ñu doon wax loolu naan ko ñi la wër ñoo lay yàqal xëy na dafa dem ba rendre ci compte man noonu laa ko jàppe mu décider en tout cas waxtaan ak justice bi ñi libéré. ñu commencé libérer les détenus politiques. El Malick euh, bari na euh, bari na ñu interroger aussi si lool li ngay wax nii mais c'est difficile quand même nga gëm ne président Macky Sall moo toog ba neex ko rek mu xalaat ne euh, oui il faut décrisper il faut pacifier donc je libère tous les militants de Pastef ñu bari nee nañ yaa y a discussion am na waxtaan qu'est-ce qui s'est passé. ci li nga xamante ne nii loolu laa mën a wax mu leer nañ. Sénégalais yi may dégg yépp xam comme yi amul benn demande boo xam ne formuler nañ ko bu weesoo li ñuy wax tout le temps ci médias yi que ni nañu libérer les détenus politiques loolu mooy benn amul lenn loo xamante ne ni condition boo xam ne teg nañ ko pour lii mel nii mën a am libération yi dañoo xëy gis ko comme tout le monde ah ah je suis affirmatif. c'est pas da ngay écarter possibilité wu xëy na ñu waxtaan ak Ousmane Sonko ci lu ngeen yëgul parce que Ousmane Sonko est en prison. mën na nekk ñu ñu c'est c'est très normal mën na nekk président président Macky Sall. décidé ne day waxtaan ak usman Sonko pour x raison. oui buñ ca yeggee xëy na bu fekkente ne lu am la yéen xam ngeen président Ousmane Sonko. Mhm. saa yu waree wax dina waxte te bi wax ak askan wi dëgg lay wax. oui mais sauf li am solo mooy non xaaral ma wax la depuis que ñu commencé di coow ci lii ba léegi Ousmane Sonko à chaque fois ñu mas ko taqal dara yenn saa yi bu ñu waxee sax dendale ko mu weddi ko même bi mu nekkee en prison il est arrivé de faire des posts sur Facebook et mais bi ñuy coow li naan ñi ngi négocier ak négocier wuñ danañ libéré ak du ñu libéré ba léegi kenn déggul mu wax. man nga ñu nangul mbir tamit. oui mooy saa su saa suñu tànnee ñun wax. Mhm. dañuy wax ci moment bi mu soobee ak ni ko bëgg a waxee. c'est droit. léegi nag ci li ma bëgg a wax nga xam ne d'abord mooy libération détenu yi nee naa la benn waruñ fa woon a nekk ñaar yàgg nañu demander ñu libérer leen ñoom bu ñu xëyee décider libére leen dañ leen ci encourager ñu continuer ba détenu yi yëpp génn parce que un tiers bi génnagul encore une fois d'accord mais li ma mën a firndeel fii jàkkaarlook mhm. jàkkaarloog sénégalais wax leen ko mooy amul benn condition boo xam ne ñun tegal nañ ñu ko ci table ji pour libérer les détenus politiques. ça c'est un mën nga ne le Pastef wala l'ex Pastef El Malick Ndiaye. le Pastef ak Ousmane Sonko laa wax. oui Ousmane Sonko je suis je suis je suis non mais tamit. Mhm. man je suis le responsable communication du parti. d'accord li may wax man nga ko jël comme lu officiel. bien sûr. donc su ma ne la su ma ne la. Mhm. amul benn condition bu ñu teg pour kenn génn. Mhm. mooy li am. loolu mooy benn. Eh bu fekkente ne dañoo ñëw. et lan moo mën a nekk condition bi bëggoon naa ngeen wax ma ko xam nga lu tax. Mhm. saa yu Pastef waree taxaw ci loo xam ne naka sudul noonu la lu ñu bëgg a def ci wàllu yoon Pastef même position que peuple bi la jël moo xam ci loi yu njëkk ya mhm. moo xam ci dialogue yu njëkk ya moo xam ci ba ci bu mujj bii mooy report bi dañu ne nous sommes foncièrement contre le report yamuñu ci de suñu ay député firndeel ko gis ngeen taxawaay bi ñu am assemblée nationale. oui ba gendarmerie ñëw obligé génn leen pour ñu mën a jàllale seen vote. Mhm. Pastef yamuñu ci de ñu attaqué loi bi conseil constitutionnel ñu am ci ndam. moo tax ba conseil constitutionnel. rétabliraat calendrier électoral bi ak à travers sa décision bi mu génne récemment mhm. waa léegi xanaa kon bu fekkonte ne dafa am condition <laughs> xëy na ñun ñu favoriser report bi wala ñu liggéey lu jëm ci report bi bu weesoo loolu lan moo fi nekkaat comme action boo xam ne mën ngeen ko fi gis comme condition peut-être mën nañ d'accord ak yow nga ne joxewu leen dara en contrepartie Euh, sauf que euh, ce que Ousmane Sonko fait en prison moom moo ko xam ak xëy na ñamay waxal mais autre chose est-ce que lenn aussi xel nu ko jàpp que ni président Macky Sall mu ne dafa bëgg a pacifier xam na ne il faudra certainement qu'il discute avec son principal opposant mu ni naa libérer euh, nu ñu koy waxee sax les détenus politique pour donner des gages de sa bonne volonté am na ci droit loolu loolu mënu ma ko koo bañ sa bonne xam nga koo xam ne dafa doon taxaw <coughs> mhm. man seetaan naa benn live bu président Ousmane Sonko bi mu nekkee jigéen Ziguinchor. muy wax ni ci lay indee histoire Firawna na ak yonante bi nim ñu teetalee ci ay affaire de ay dialogue ay waxtaan ay tout ça ni mu ci doon wax ak doon wax que ni président Macky Sall du question ay mbañeel ak yooyu am ci biir mais euh, ñi koy jay ak ñi koy pousser ci li mu nekk di def. Mhm. maanaam ñoo koy sànq et foofu mu doon demander libération détenu vidéo bi gis naa temps yi sax euh, euh, euh, patriote yi di ko tas ci ci réseaux sociaux yi mhm. lan lay firndeel mooy la ñu doon wax dañoo jàpp ne président Macky Sall yegg na foo xamante ne nii il s'est rendu compte que ah wax fa dëgg yàlla nag ñii yaay nañ ma ci boor boobu loolu ngeen jàpp mu mu libéré parce que tamit nag cool yi amul amul amul amul mën na cee ba ñàkk de xam nga lu tax mhm. ñoom ñoo tëjoon te bi ñu tëjee Sénégal yëpp d'accord nañu ne anam yi ñu tëjee jaaduwul ñoo xëy tijji ñu bëgg ne ñun xëy na dafa am condition yi ñu teg ci taabal ji pour ñu tijji ba pare ba pare li mhm. ci am importance mooy est-ce que yéen ngi gis ñii génn motif yi ñuy wax naka lañ leen jàppee bu ñuy wax seen rési mhm. mais c'est extraordinaire ñoo kenn waru leen woon jàpp après tu te demandes même xanaa président Macky Sall yëgul woon xeetu jàpp yooyu noonu quand même ramasse la woon mujj gi damaa xëy 7h30 di jënd mburu ñu woo ma xool sama téléphone gis écran d'accueil bi nekk Ousmane Sonko ñu ne ma kaay da ngay dugg. ay xale yu am 15 ans war a dem forbe ñu yóbbu leen rëbës on on on parle de trois am nañ sax ko ne mi ngi fa des. ku am 15 xaw ma hmm. Mouhamed Dieng xaw ma. absolument. Euh, ñooñu ñëpp ñu téye ay un an huit mois. ci ñu waroon a jàng ci ñu ay soutien de famille et cetera euh, foofu dinaa ci profité invité presse mm-hmm. su ma sañoo mm-hmm. ñu arrêté di interviewer détenu yi door a génn gis nga ñooñu mm-hmm. dañu soxla assistance détenu yëpp parce que koo xam ne mosoo xam sax police xëy na boo budul da ngaa wuti certificat de perte ñu dugal la ci ay conditions ñu lay wax ay paquetage ay taxaw di taxaw taxaw journée taxaw guddi lëmm. ndax ñàkk foo tëdd. absolument c'est-à-dire que torture psychologique yi ñu dund yépp mhm. génn rek ñu tendre leen micro ñuy wax. jàpp naa ne presse bi mën na ci def attention reprocher ça ko reprocher invite la invite la est-ce que du yéen yéen a waroon gérer cette communication xam nga tax mënuñ ko gérer xam nga tax mënuñ ko gérer sëñ Moustapha mhm. ay sénégalais lañ jàpp de tout bord da ngay dañuy xëy rek jox la nga gis ku yor mbuusam génn dem. li ñu mën kay mooy presse bi ñu ñaan leen. d'accord ñu xam ni ñooñu li ñu gën a soxla te te ñun suñu euh, équipe euh, santé et sociale ñu ngi ciy liggéey bu baax. Mhm. ak euh, ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci parti bi mooy assistance déjà médicale psychologique et tout. pour que ñu mën a dellu tranquille seen njaboot noppalu tuuti après ku ciy ñëwaat fii. Mhm. Euh, waxtaan def récit wax fi mu jaar ak yooyu nga xam ne ñëw na def ko sans émotion ci ci teeyu ba kanam ci xel mu dal ainsi de suite man foofu lay ñaane te loolu c'est ñun Sénégal yëpp ñoo ko bokk parce que même journalistes yi ku ci nekk ñii am nañ ci rakk ñii am nañ ci parce que mbir bi kenn mu ci bien sûr alors euh, El Malick euh, wax nga ne négocier leen dara amul leen lu ngeen joxe en contrepartie pour la libération affirmative de ces détenus politiques et yaa ngi <laughs> yaa koy affirmer avec force mais est maa ngi wax sànq ne est-ce que Macky Sall bëggul joxe des preuves wala des gages de sa bonne foi est-ce que tey soo gisee loolu da ngay ne Macky Sall est de bonne foi bëgg na pacifier. ah du ma ko ko weddil dans la mesure où ñun loolu lañ doon wax ñun loolu lañ doon wax. Mhm. il y a quelques mois na pacifier na décrisper li ko fi dese na libérer détenus yi wax ne man defuma troisième mandat nii laa ko doon répété. wax ne dinaa organiser élection yu leer nañ ñi nga xamante ne nii matal nañ ko ñëpp ñu bokk ci maanaam élection inclusive su ko defee après mu dem xool fu ko neex mu dëkk bu ko neexee mu dëkk ci réew mi bu ko neexee mu liggéey bitim réew bu ko neexee sax mhm. le prochain président mën a ñëw di ko consulter sur certaines choses wala sax di ko envoyer sur cette dans euh, ci ci ci yenn mission yi mhm. loolu ku la koy wax xam nga ne yéenewu la safaan bi léegi nag moom bu fekkente ne dem na ba rendre compte ci loolu mhm. mu décider que ni day libérer joxe ay gage fa lillahi ñun de toute façon ce qu'on a toujours dit mhm. mooy mësuñu wax ne duñu dialogue ah oui ah oui Ousmane Sonko moo fi wax ne Macky Sall xamul waxtaan Macky Sall rapport de force la xam. waaw et ñi ngeen doon woowee les dialoguistes sax c'est ce qu'il vous rappelle tout tout le temps. waaw muy euh, le camp de Khalifa Sall le camp de. dama euh, ciy ñëw du Parti démocratique sénégalais ce qu'il vous a doon wax ne euh, ngeen ne oui vous avez tout dit que ni vous êtes. wax de dañ ko yàgg wax. Mhm. dañu ne. dañu dul dialoguer n'importe comment et dans n'importe quelle condition loolu mhm. dama bëgg mu vidéo bi ma lay wax sànq ne le président Ousmane Sonko def na ko il y a plus de six mois sept mois. mu ngi ciy wax loolu. mu ngi ciy wax ne sax loolu diine moo ñu ko sant. mais Barka si YouTube mais la vidéo. mën na ko trouver peut-être. Mhm. parce que ci euh, Facebook live la ko defoon mi ngi ci sol yére bu bëla koppati bu bëla. d'accord léegi. leneen li nga xamante ne ni moo ci am solo. mooy dañu ne duñu dialogue. Mhm. avec un couteau sous la gorge. Mhm. wala benn pistolet bu ñu teg suñu bopp xanaa loolu Sénégal yëpp dégg nañ ko. rax ci ni bu ñuy dialoguer aussi ñun foog ñu am ay termes de ref euh, de référence yu leer bi mbirum Covid jotee Sénégal kenn mënu woon xalaat ne Ousmane Sonko dina dugg pale bay toog ak Macky ah, moom sax nee na euh, waa parti ma ko convaincre. il ne voulait pas non ma ko convaincre mm-hmm. moom. Mm-hmm. bi mu jotee invitation officielle en tant que président de Pastef le Patriotes. comme ni mu koy defee saa su ne dafa consulter les instances du parti le bureau politique les coordonnateurs nationaux et ceux qui sont au niveau de la diaspora ñu ne ko lii kat question d'intérêt national la faw nga dem mu ne kon baax na dinaa dem ba mu demee tamit waxtaan ak président Macky Sall génn taxaw ci perron bi wax la mu xalaat bu ak dialogue bu mënoon ni dem tamit comportement boobu la fay am léegi nag mhm. yeneen dialogue yi ci am li tax mu ne du ca dem parce que et mbir mi day phasé dafa am foo xam ne boo ca tollee munoo dialogue rapport de force nga mën xam nga lu tax lu tax woote dialogue national walbatiku ci même semaine bi nga woote procès national contre Ousmane Sonko ba pare nga bëgg kooku ñëw ci dialogue dem leen xool mhm. dialogue national bi kañ lañ ko woote mhm. ak kañ lañ convoqué procès président Ousmane Sonko léegi bu ñu waree dialogue supposons ñu ne nouveau dialogue dafa am. kan la ñuy invité ban institution ban organisation la ñuy invité. parce que. le candidat Diomaye Faye wala la coalition Diomaye président non loolu dinaa ci ñëw. Mhm. buñ ne dañoo war a def dialogue. Mhm. ma rappelé na même am na jalog bi passé bi ñu doon génne Karim xaw ma bi ñu doon génne Khalifa. ñun dañu ne demuñ ci dialogue national boobu mais dinañ dem ci dialogue politique bi Adjuma Sow représenté ñu ci dialogue politique bi parce que pour nous c'était une question du processus électoral mmh. comme pour ça c'est voilà bii mm-hmm. booy invité Pastef te da nga koo dissoudre nooy organisation nga invité ça aussi c'est une question booy invité léegi booy <coughs> invité président en fait. waaw léegi beneen bi beneen ma ci ci tegal <coughs> bu dee président Pastef nga bëgg invité mm-hmm. noo koy invité te ma ca kaso ba léegi bu dee candidat wu Pastef nga bëgg a invité. noo koy invité Pastef amul candidat Pastef amul candidat. Bassirou Diomaye Faye. Mhm. noo koy invité. xam nga dafa am loo xam ne. Mhm. li naan euh, wax bu dofee tamit nopp yi koy dégg mën a mën a mën a wér. Mhm. parce que mënoo ni tas nga parti tëj nga président wu parti ba tëj secretaire général ba de sur quoi mu nekk la candidat. ba pare bëgg a dialoguer ak ñoom. mais El Malick de de de de toute l'histoire politique du Sénégal quand même liñ ci gën a cité mooy Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade. waaw y toujours eu discussion. même su fekkee ne c'est pas li ñuy gis léegi nii ay dialogue dans les médias euh, woote ñëpp ñëw toog. mais mais loolu. mais tey mënu leen mënu leen wax ne mënul am ci diggante Ousmane Sonko Macky n'a pas de jamono bokkul. oui yi bokkuñu homme politique yi bokkuñu. bu boobaa ñun dootuñu nekkati Pastef dootuñu nekkati nouvelle façon de faire de la politique bi nga xam ne moom la ñu incarné ba indi ñu fii ñu toll ku nekk dañ lay nangul la nga bëgg am na ñu dem dialogue ñun président Ousmane ko à chaque fois dialogue am am ñu dem danaan mandu leen ci bàyyi leen leen ñu dem ils sont libres waaye ñun lii lañ choisir bu ñuy dem dialogue ci condition yii la ñuy demee kon ñoom Alioune Tine bi euh, Goudiaby Atepa ak peut-être ñeneen ñu ma xamul ñuy wax ne ñu ngi dox ci diggante bi Alioune Tine ça il a dit que ni moom gisagul Ousmane Sonko ça il a dit euh, est-ce que ça veut dire que pour yéen c'est inutile jaru ko. non xam nga. Mhm. ñu wax ne wax fa dëgg yàlla ci réewum Sénégal. Mhm. kenn du fi def médiation. d'accord Alioune Tine yàgg na alerté. Mhm. yàgg na wax ne pour réew mi de am jàmm. président Ousmane Sonko dafa war a génn bokk ci élection yi. wax wax dëgg yàlla à sa décharge yàgg na ko bind na ci ay recommandation ba mouvance présidentielle bi mere ko ci attaqué ko ci attaque yu métti te xam na ne faraluñu mhm. léeg-léeg mu wax loo xam ne sax ñun suñu gars yi ñooy wëlbatiku di ko attaqué mhm. donc damay jàpp ne moom ngir jàmmi Sénégal tax a jóg mhm. comme toujours voilà il a fait dans d'autres pays africains léegi ñoom ñu dugg ci ci ci médiation ñun wax dëgg yàlla amuñ dara luñ ciy wax xam nga la moo am solo confiance total bi ñu am ci suñu président Ousmane Sonko. Mhm. am ko ci suñu candidat Bassirou Diomaye Faye mooy ñoom mhm. am nañu mat ak ngëm ak constance ak conviction ak principe yu mat sëkk yoo xamante ne nii bu ñu bu ñee yónneewee wala président Macky Sall sax demal boppam di waxtaan ak ñoom mhm. la ñu fay wax du doon seen njëriñal bopp pour yow le plus important mooy Euh, li ñu bañ a bañ a def li ñuy tuddee deal. waxtaan sur le dos des sénégalais. exactement loolu xam nga loolu. buñ ko bëggoon a def xëy na sax duñ dugg kaso. te duñu yegg si fii yéen xam ngeen loolu. Hmm. wax dëgg yàlla duñu dugg kaso duñu yegg si fii waaye. Hmm. dañu am benn marque déposée. mooy lépp lu ñuy def dañ ci seet yàlla ak askan wi te. loolu mhm. moo ñu may li ñu am tey léegi nag euh, bu la dara fale mhm. nga teg ko fële fàtte ko mhm. li la folli day yomb ñun askan wi mooy suñu kiiraay mooy suñu wéeruwaay mooy suñu doole te yaakaar naa ni euh, relation wala contrat de confiance bi am suñu diggante ak ñoom moo ñu may ba ñu yegg fii tey président Ousmane Sonko bu fekkoonte ne boppam rek lay xalaat day mhm. def ni ñenn ñi defoon du wut plan B C D ba X ba Z déedéet man lay doon nañu xeex mu doon man bu dul man du doon keneen. loolu ngeen ma sa wax doon keneen. waaw loolu ñun ñun ñi yor communication bi ñoo ko doon wax. c'était dans la stratégie. waaye oui. président Ousmane Sonko xam na ne la ëpp solo. Mhm. mooy projet bi nga xam ne am na adhésion wu écrasante écrasante majorité sénégalais yi. Mhm. projet booba. raw d'accord et pour mu raw nag il mmh. fallait mettre des stratégies choisir des plans et je a fait que quelle soit situation politique gu Sénégal mmh. projet bi am na candidat am na candidat alors El Malick je vous sais très informé Ousmane Sonko Diomaye Faye sort quand kañ la ñuy génn prison Ah, bu ko yàlla dogalee doo ma ah. laaj man kan la ñuy teg sama bracelet ah, bu ko yàlla dogalee laa lay wax bu ko yàlla dogalee cette réponse je l'avais déjà xam nga lu tax xam nga lu tax oui sama aqulata non je pose la question parce que euh, ci réseaux sociaux yi damay lire depuis quelques jours que ni dinañ génn semaine prochaine dinañ génn jeudi dinañ génn mercredi dinañ génn vendredi vendredi ils sortent quand quand ñu génn c'est normal que nit ñi bu ñuy gisee ne euh, président Macky Sall mu ngi dem ci pacification wala décrispation mhm. di libérer ay détenus ñu xalaat ne ñoom président Sonko ak Diomaye dinañ ci war a topp ku mel ni Alioune Tine tamit wax na peut-être moom Macky Sall la rencontré ne ne président Sonko dina génn dans les jours à venir et cetera c'est normal que nit ñi jàpp loolu d'autant plus que nit ñi loolu rek lañ yàkkamti xëy na dem nañ ba rendre compte que ni Sénégal kat. Mhm. fii ñu toll nii à la croisée des chemins beaucoup d'incertitudes tension bi nekk fi. Mhm. nekk lu réel cafouillage juridique bi ñu jaar ak yépp mhm. jàpp nañ ne xëy na génne président Ousmane Sonko dina bokk ci lii dalal mbir yi c'est de bonne guerre ñi ñi xalaat ne war na génn mhm. mais sama aqulaa taala mënuma laa wax ni mhm. wax nañ ko ne da ngay génn nangam wala moom nee na ne damaa bëgg ngeen génn ma sang ba sàngam wala et cetera mhm. loolu moom wax fa dëgg yàlla amut yëguma ko man en en question tamit maa ngi nii xaw ma ñun ñi si des ñëpp ñun tamit kan lañ ñuy kan comme ni ñu koy waxee dëgg naa tey le le le le brillant professeur Ahmet Ndiaye euh, mu wax ci euh, ITV que ni plus rien ne s'oppose à la libération de Bassirou Diomaye Faye parce que dafa jàpp ne à partir du moment où conseil wax na ne il remplit toutes les conditions pour être candidat il a pièces yu ñu demandé à chaque Sénégalais qui veut être candidat il plus rien qui le moom bu waxee ne même si c'est une liberté provisoire dañ man bu loolu weesoo sax dafa am dafa am ay raisons yu war a tax. Mhm. en de ça. oui Bassirou li ñu koy reproché moom la ñu reproché Fadilou Keita. Mhm, mhm. ça on le dit pas mais c'est vrai c'est vrai. ah Fadilou du génn na. parce que Bassirou dañ ko jàppoon euh, ci benn post bu mu defoon après quelque mois après ñu ne moom ak euh, Fadilou ñu ngi leen poursuivre ci beneen dossier. ban dossier. dossier wu euh, appel à l'insurrection ou je ne sais quoi. dossier Ousmane Sonko dossier bien. dossier Ousmane Sonko def supplétif dugal exactement est-ce que xam nga ne est-ce que xam nga ne man yow nañ ma ci. yow aussi bu yàggul. je savais pas. waaw. j'avais pas cette information là donc yow nga libre Fadilou libre Bassirou Diomaye mën na libre. non c'est pas ça bon man j'attends woo ma peut-être inculpé ma et cetera. <laughs> non bu ñu la inculpé noonu laa ko laa ko noonu laa ko mën a waxee. <laughs> l'essentiel <laughs> informé nañ ma. donc euh, yëg naa ko. Mhm. ëpp na peut-être euh, mat na un mois xëy na. mais li am solo ba am solo mooy. Mhm. jàpp naa ni de rendre nañ compte que ni wax fa dëgg yàlla ay manifestation ak yu mhm. lu yàgg am ci réew mi waruñ ci mën a jàpp nit. au pire des cas sax mais euh, flagrant délit mhm. ñu door la sursis nga dem wala ñu door la benn un mois wala quelque chose comme ça. Mhm. fla man yaakaar naa ne boo defee post Facebook ñi jàppale ci post Facebook bi ana enquête ba lu ñu soxlaa enquête kon kay bu dee post Facebook dañoo jàpp ne lii dafa war ak yoon. Mhm. jàpp nan la loxo ci post flagrant délit ana instruction lu mu ciy wuti. jërë moo tax. ma jàpp ne ñoom ñëpp war nañ leen bàyyi ñu seen kër alors euh, euh, moment boobu nga xam ne moom lañ tuddee moment wu décrispation euh, moment wu pacifié seetlu bi quand moo di ne ba léegi Euh, waa Diomaye président buñ génnee nañu campagne alkaati yi gazé leen tey bu ci mujj mooy euh, marché Thiaroye est-ce que kon ñi wax ne El Malick Ndiaye euh, ça je l'entends souvent ci waa Pastef ñoom El Malick ñoom Ousmane Sonko ñoom Guy Marius Sagna Bassirou Diomaye Faye nañ moytu Macky Sall ñu bari naa la il faut être méfiant Sall mën leen ndax à tout moment. nga leen xam nga ñun. Mhm. wax fa dëgg yàlla ay at a ngi nii ñi naan ñu moytu leen Macky mhm. ay at ngi nii. nguur gi di dal suñu kaw mhm. mais na ma ko waxoon rek laa koy waxaate nguur xajul ci doo kaw nit mhm. mais tant que ñun ñi ngi nekk ci yoon wi ñu nekk jàpp ne li ñuy def dëgg la ci ñun suñu aqulaa ngir njariñal askan wi la yàlla dinañu sàmmal boppam mhm. man noonu laa man loolu mooy philosophie bi amul leneen loolu moo ñu may lu ñu am ba yegg si fii ba nga xam ne ci jamono yi wax fa dëgg yàlla malgré fi ñuy jaaraleel yépp élection du am Sénégal te bokkuñu ci loolu la yàlla dogal à partir de ce moment am ñuy continuer dans l'abus su yeneen candidats yi génnee di def seen caravane kenn du leen laal parce que am na candidat yoo xam ne ñeme wu ñoo def caravane y compris le candidat du régime xalaatu ko yéen ak Aliou Dié bu pur rek yéen a ne ci mbedd yi non euh, tey gis naa ñeneen ñu génn mais ñooñu moom kenn du leen laal dañ leen di bàyyi ñu déroulé nu mu leen neex mais Pastef fu mu tëll ñu gazé xam nga lan lay firndeel mhm. élection am moo tere Pastef jël réew mi élection am moo tere coalition Diomaye président jël réew mi loolu moom beneen affaire la sénégalais ñoo ko décidé dinañ ci ñëw ci kanam ah, mais lan la ñuy ragal lu tax gazé wu ñu ñeneen ñi parce que xëy na du ñu menace loolu laa ko mën a jàppe wala boog dafa am leneen lu ñu xamul. parce que mënuñu comprendre ay euh, euh, vingt candidats nekk fi. Mhm. ñenn ñi dérouler tranquillement mais ñun fu ñu wàcc particulièrement Guy Marius Sagna nag moom xam naa ne singali nañ ko. Mhm. fu ñu wàcc. tey nee na ñu dal seen kaw dizaine de gaz mais du yoon nañu bàyyi nit ñi ñu dérouler sénégalais yi ñooy tànnal seen bopp. wax dëgg yàlla joxe spécimen amul benn menace euh, insurrection <laughs> réelle bu ci am. joxe spécimen kii kat mooy sama candidat bu tànn jotee tànnal leen ma ko. parce que ñun dañuy wax ne dañuy continuer suñu campagne. d'accord alors ñu ñu wéy ba léegi sax ci ci campagne boobule ak présidentielle bi ñu jëm dinañ wax ci affaire date bi parce que amaguñu date ba léegi euh, mais dañu yàgg dégg waa waa PASTEF euh, seen leader ci boppam muy wax manque de confiance mu am ci yenn ñenn membre de l'institution judiciaire. le conseil constitutionnel ñu bari waxoon ne wéy de toute façon Macky leen fa teg moo fa teg équipe bam nu ko neex la ñuy defee et tout malgré tout malgré tout le conseil constitutionnel boobu ngeen yi xas moom moo valider la candidature de Bassirou Diomaye fay validé bu euh, Cheikh Tidiane bi ñu ne c'est un candidat Sonko compatible comme on dit le même conseil constitutionnel moom moo invalider candidature euh, Karim Wade après une saisine wala un recours de Thierno Alassane Sall le même conseil constitutionnel pour ne pas dire les mêmes sept sages ñu retoqué quand euh, euh, le le décret du président Macky Sall bi dàq élection yi ne nañu dem élection dans les meilleurs délais exemple... est-ce que est-ce que c'est pas le moment quand même de reconnaître que ne vous aviez tort amu leen benn amu woon dëgg nekkuloo leen dëgg bi ngeen dal ci kaw. institution yooyu la benn firnde laa lay jox. Mhm. conseil constitutionnel ci ban motif la invalider candidature Karim Wade. Oh, parce que dafa am double nationalité. pourtant euh, rendre na nationalité bi. mais moment moment bi muy déposé candidature am c'était pas le cas c'est ce que le conseil dit. loolu la bëggoon nga wax ko. ban motif la invalider candidature Ousmane Sonko. Ousmane Sonko parce que et puis dafa incomplet. déedéet dossier bi dafa incomplet. si. condamnation diffamation bi. moo ne day mhm. moment ba ñuy xool dossier bi condamnation bi génnagul li invalidé Karim mhm. moo waroon dugal Ousmane Sonko ci élection bi bu dee logique lañ topp mhm. loolu mooy dëgg caaxaan bi dafa bëri mais mais reconnaissons quand même non du amul non non dafa dànk rek non non xam nga ñun ay ay fee laa wax fact c'est-à-dire lii loo mën a duut baaraam la parce que dañu ne Karim Wade bi ñu koy jox maanaam titre que ne kat kii nekkatul nationalité française mhm. dafa fekk mhm. maanaam dafay dafa dabu dafa dabu alors bii def sa déclaration sur l'honneur fekk na mu yor deux nationalités waaye fekk na mu déposé nag waay kayit kayit titus bi moo yéex a génn mhm. yaa ngi comprendre waa léegi kee Ousmane Sonko Ousmane Sonko comme moom tamit lee dafa dabu. Mhm. waru ko woon a invalider la ñëw loolu nga bëgg a wax. Oh, après la ñëw. te ñoom sax ñoo ne laaju ñu ko de. Mhm. ñoo ne cour suprême moo leen ko yónnee lu kenn mësul gis. Mhm. sëriñ bi mënoo fexe ba yooyu moom du dëggal ñun li ñu doon wax leneen li ci am mooy wax fa dëgg yàlla nañ ko wax. candidat yu bëri yu ñu recalé ci yan condition lañ leen recalé. ci condition Bassirou Diomaye Faye dafa rëcc. mais boo ñëwee déposé sa fichier bu leer naññ ñu ne la douze mille nangam nekkul ci fichier bi dinañ ci ñëw. parce que lu garaaw a garaaw a ngi noonu. Uh-huh. yoo xam ne buñ ci demee <coughs> élection ci condition yi luy doy waar lay doon. mais ñu invalider ci lu ëpp une quarantaine de candidats nga def cumul ñi ñu wax ne nekkuñ ci fichier bi uh-huh. mu ëpp mu mat neuf cent mille waaw neuf cent mille yooyu fan lañ nekk alors ay parrains yu existé lañ yor seen ay carte électeur y compris Mary Teuw Niane waaw léegi ku def loolu du conseil constitutionnel. avec le système que vous avez validé. waaw la classe politique ñoo ko validé. le conseil n'a fait que ci benn accès bay validé xam nga la mooy coow. non mais quand je dis le système que vous avez validé l'Assemblée nationale moo voté le parrainage ñu ne ni la ñuy contrôler. système bi lan lañ voté woon bi ñuy def parrainage bi euh, ñun du contre Oui. Voilà. Mais ça vous engage. Non, ça ne nous engage On n'est pas d'accord, on a dit non, on a voté contre. Nga ne ça nous engage. Oui, mais on nous l'a imposé. C'est différent, Moustapha. <laughs> xam nga baax may wax. Mhm. ñun ñaari yoon gis nga même 2018. Mhm. on a voté contre loi au parrainage. mieux bi ñu jàllee ñun parrainage parce que ñun jàpp na ne ñu ñoo taxoon ñu tegal ñu parrainage ñu nekk cinq. Mhm. candidats président Ousmane Sonko daawoo yeneen quatre candidats yi ne en solidarité ak ñi nga xam ne dañ leen bloqué parrainage ñoom maali Gakou tout ñoom Bougane et cetera. Mhm. nañu retiré ñu ñëpp suñu candidature Macky Sall des seul ak ay élections. en 2019 2019. gars yi daal di dem génne euh, courier bi tas ko ci biti ne président Sonko prête le report ñi naan il ne pas prêt. 2023 bi. 2022 23 bi ñuy euh, kiiwaat euh, parrainage bi. mais on a voté contre et pourtant ñun ñëpp xam na ne am nañ parrainage mais c'est une question de principe et de respect de la constitution. oui Elmel quand je engage mooy quand l'Assemblée nationale vote cette loi là nga bëgg ko nga ma bañ ko ça s'applique à nous tous. ça ça s'applique à nous mais ça ouais. ne nous engage pas dans la mesure où lañ ca waroon a def def nañ ko. Mhm. on a dit nous sommes contre on a voté contre on s'est battu. pour que mu bañ am parce que jàpp nañ ne loi bi baaxul jàpp na et l'histoire nous a donné raison parce que li xew ci parrainage mais sëñ bi gis nga parrainage bi ni mu demee moo indi coow li ñu dund nii yëpp moo tax ñu jàpp ne ñun waxuñu ne nous sommes contre le parrainage ah mais dañ ne forme de parrainage bi baaxul nañ ko xoolaat encadré ko d'accord l'étape du parrainage moom jàll nañ ko léegi ñu jëm ci élection présidentielle maa ngi wax sànq ne le conseil constitutionnel mu rejeté bëgg-bëggu président Macky Sall. moo doon ñu dem ba 15 décembre. Mhm. mais la moment bi ñu toog mën ak yow di wax amaguñu date cette équation de la dat du de la présidentielle El Malick Ndiaye nan lañu koy réglé. ah xam ne dafa bëgg a wàññi. mu ko doo yokk doo wàññi ñu ne ko mënoo wàññi. Mhm. Ah, sa ñu ñoo ñëw ne ko mënoo wàññi pare waaye mën ngaa yokk. voilà c'était en 2016. Mm. donc encore une fois loolu wax dëgg yàlla duñ ci duñ ci félicité nit. ministre bi jox nañ ko budget ne ko defaral ñu lii mu defar ko ñu koy félicité loolu loolu réew sous-développé ak ñu sous-développé rek ñoo mën a xalaatee noonu lii am solo ba am solo mhm. mooy. il faut ñu trouver date léegi. mais merci. maintenant côté boobu le conseil constitutionnel wax na ne nañu organiser élection. dans les meilleurs délais dans les meilleurs délais. Mhm. fixé lu ñu sax date encore une fois. bon. am na ñu ne mënoon na je cite encore le professeur Ahmed ah, Diaye mu ne conseil constitutionnel mënoon na proposer date mënoon na fixer date ñu ngi ko doon xaar de ndax bu ne dans les meilleurs délais meilleurs délais lu mu doon waaye comme nee na bu mu mm-hmm. weesu euh, président Macky Sall bu mu weesu 2 avril mm-hmm. ñu jàpp ne au moins dans les meilleurs délais ci intervalle boobu la nekk mm-hmm. président Macky Sall ñëw ne le conseil nous dit il faut ñu am président avant le 2 avril merci oui. le président Macky Sall ñëw daal di ne ah moom dina dégg na li conseil constitutionnel wax dina appliquer. ce qui est rassurant d'ailleurs. ah ce qui est rassurant. Mm-hmm. Diomaye président génne communiqué. Mm-hmm. réitérer loolu ré demande ñu respecte ko mais avec une transparence aussi du processus électoral parce que y a énormément de crainte quand même. ci processus bi ah oui léegi nag. Mm-hmm. loolu li muy firndeel mooy ñun ñu ngi xaar président Macky Sall. parce que moom ay nitam ñoo war a organiser élection yi. ak les vingt candidats xaw ma vingt la xaw ma dix neuf sax. loolu dinañ ko lijjanti. vingt pourquoi dix neuf doy na waar de. Ah, ah double nationalité yi. <laughs> ah mais non mais Rose Wardini on on peut plus rien y faire euh, le conseil a rendu sa liste définitive. kay moom kay xanaa conséquence dina kon ne vérifier ndax moom kese la est-ce que moom kese la. waaw ah, mais est-ce que bu ñu vérifier bu baax du ñu yem ci quinze candidats. mais justement si on demande au conseil de vérifier euh, de revenir sur le cas Rose Wardini il va faudra. waxuma Rose Wardini nii de mën na sax vérifier vérification de fond comme ni ñu génnelee Rose mën nañu génneel keneen. lu mën a nekk la. mais li am solo comme kii par exemple déedéet du ma ci sori. li am solo mooy <laughs> euh, tey. Mhm. yaakaar naa ne ñooñu rapidement war nañu mën a daje. parce que liste boobu la conseil constitutionnel. parce que dégg dama dégg ku mel mu wax ne euh, affaire bi warul yam entre les les les vingt candidats faut que ça soit une discussion de toutes les pour trouver la la la meilleure date moom moom recalé la moom noonu la mën a waxee waaye conseil ñun li ñu amal importance mooy li nga xam ne moom la constitution bi wala moom la conseil constitutionnel wax mhm. daa tënk yëf yi ne vingt liste boobu mu arrêté woon moom la confirmé nañu organiser élection dans les meilleurs délais na président Macky Sénégal am président bu bees à partir du 3 avril xam nga loolu leer na. à partir de ce moment yaakaar naa ne président Macky Sall bii wax euh, vingt candidats yi lay waxal. ci li ma xalaat. bu ko defee ñoom bu ñu waxee waxtaanee parce que mbir mi xam nga la mooy coow li. Mhm. mooy ban date la ñuy jël. et que su boobaa naka la ñuy def ba respecter délai campagne. Oui. respecter délai de passation foofu la coow li nekk. loolu nag lu ñuy waxtaanee la. est-ce que est-ce que mënuñu waxtaanee wàññi par exemple durée campagne. loolu moo tax ma ne lu ñu waxtaanee la. candidat yi nangu ci gis naa sax candidat yu ne dañu war a organiser candidat confirmé ñu ne dañu war a organiser après 2 avril gisoo ko. non gisaguma boobu. ah ñu bokk ci vingt candidats yi. waaw. xanaa ñooñu bëgg ñoo bëgg ñoo falu. bonne question kenn comprendre lu li xew. ku mel ne Malick Gakou par exemple il dit que ni kan mën nañ def le 3 le 3 mars. mën nañ def le 3 mars am na ñu ne mën nañ def le 10 mars. Oui. le plus important mooy nañu organiser élection sénégalais yi tànn maintenant. Mhm. loolu tamit bu mu tax mukk ñu ñàkk wax ci mbirum. fichier électoral dinaa ñëw ci fichier électoral bi léegi mais mais le Macky communiqué boobu Yoro signé ngay wax sànq daf jox ne le président va entamer euh, sans tarder des consultations la veille sax recevoir oon na un candidat muy Mamadou Lamine Diallo je ne sais pas s'il en a reçu d'autres entre-temps mais est-ce que yéen yéen la coalition Diomaye président est-ce que vous êtes prêt pour participer ci consultation yooyu la loolu su seen candidat demul pale aussi au moins ngeen mën a bokk ci consultation. waaye ñun suñu candidat déjà yaakaar naa xanaa dinañ ko libérer mu mën a bokk ci consultation mais li am solo mooy vingt candidats yi ña ngay waxtaan. Mhm. wala bokk dix neuf yi ndax wóoru ma ne candidat di du pouvoir ma nga ca. mais ah dix wóoru ma. non non yeneen parce que yeneen candidat de l'opposition am na waxtaan déjà ci ci ci. Ah. les vingt moyens le candidat du pouvoir. non waxuma moyen wóoruma ne tax bokk na ci. xam naa ne daal candidat Bassirou Diomaye Faye mandataire am Amadou Ba moo ko représenté ci waxtaan yi. d'accord. comme sax ñu xàccandoo dóorandoo. Mhm. à partir de ce moment ñoom la ñuy décider. Mhm. par rapport ak président Macky Sall ak consultation yi loolu la ñuy mhm. mais comme xawma lan lañ décider mënuma cee xuus. ku mel ne Alioune par exemple dafa yaakaar ne. Euh, bëccëgu ndara kàmm Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye man mën nañ dem palais euh, waxtaan ak Macky Sall mënta nekk bëccëgu ndar kàmm président Ousmane Sonko dem na pale moo tax lépp ci condition la. dem na pale mooy jamonoy Covid. Mhm. ni ma ko waxee encore une fois man doo tas sama parti tëj ma kaso bëgg waxtaan ak ma. dialogue euh, nan laay def dañ may génne dugal ma ci dugal ma ci nuñ koy waxee ti mhm. génn ma juste pour dem palais. ñu jaloge ñu waxtaan après ma delluwaat. RTS ñëw filmer il faut il faut justement. ñu teg ko ci journal bi après on passe au il faut des préalables man waxuma ne dialogue du am ntax mënuma ko décider. te même loolu bu amee li ëpp solo mooy président Ousmane Sonko va toujours. se retourner vers ses responsables. muy yéen. voilà bureau politique. Euh, Euh, euh, coordonnateurs départementaux yi. Mhm. léegi sax dañ ko décentraliser ba ci coordonnateurs communaux yi 553. Mhm. plus diaspora ne leen lii mooy situation bi lu ngeen xalaat ñu délibéré la ñuy délibéré ca lay tënku dem te noonu la mës a doxalee Pastef looloo tax. Mhm. crise bu ñëw traversé Pastef bàyyi fi Pastef. d' accord bàyyi fi Pastef mais Macky tas na ko en attendant mu xool nan lay def. alors El kayit <laughs> El Malick euh, Ndiaye di fàtte moom mooy ganu tey euh, moment de vérité El Malick euh, bu ñu leen déggee yéen defe naa am na koo wax dàmbooj fii sax vendredi mooy on a l'impression que yéen pour yéen yéen nga pale toog fan ngeen teg ne bu élection amee di le 2 avril da ngeen koy gagné. bu élection amee jaar ci yoon. na élection am ba pare. lan moo tax ngeen yaakaar ne yéen bu set les mieux placés pour gagner cette présidentielle fan ngeen ko teg. lan moo lan moo tax. pouvoir bi yëpp rey seen bopp ba président Ousmane Sonko bokkul ci élection yi. Eh, parce que dañu yaakaar ne il ne remplit pas les bokk ji li tax ñu xañ ko. ñoom loolu la ñuy wax ba dem ba nëbbatootuñ ci ne. mu bañ a bokk moo leen intéressé waaye du ay euh, tooñ na kii ak tooñ na kii. loolu dafa dem ba leer. c'est parce que xam na ne bu bokkee benn voyage la balaa 12 heures ñoom xam nañ ko nangu nañ ko. loola la président Ousmane Sonko transposé ci Diomaye. Diomaye jël transposé transposé. Ah transposé dafa yokk sax nag. léegi nag non gis nga dama lay wax benn affaire. Diomaye Ousmane ci seen slogan la yem mais c'est pas le le même. Ah nag mooy Sonko ndax ñoom ñaar ndax ñoom ñaar. of dëgg yàlla. Mhm. Eh, yàlla boole na leen ca njëlbeen ga ba léegi réeroo wu ñu benn yoon nag benn yoon. lépp lu ñuy defandoo lu ñuy waxtaanee la ñoom ñaar plus les autres du parti mm. mais particulièrement ñoom ñaar ñoom ñaar gis nga li nar a votel président Ousmane Sonko mm-hmm. du votel keneen ku dul candidat wu président Ousmane Sonko bu doon Birame Souleye noonu lay demee bu doon Guy Marius noonu lay demee bu doon Habib Sy lay demee bu doon Cheikh Tidiane noon noonu lay demee bu doon man noonu lay demee ainsi de suite mm-hmm. l'électorat d'Ousmane Sonko va voter yow kay yaay góorgóorlu ndax am na loo ci yokk mm-hmm. pour que victoire bi gën a rafet ñu jàpp ne Basiru am na lu mu yokk à parti de sa moment. ñoom ak seeni sondage Basiru mënul gañe njege ñaaw lu muy yokk. ñoom ak seeni sondage lii présidentiel la. Mhm. ñoom ak seeni sondage biir na leen ne élection bu amee. Mhm. Basiru Diomaye fay day gañe mieux li may wax ni yëpp c'est dans le cadre de Pastef. Mhm. mais là on est dans une coalition est-ce que coalition bi c'est passé maintenant à 65 partis et mouvements. la plus grande coalition de ce pays en plus de la force de Pastef ay premier ministre ay ministre d'État ay ancien ministre euh, ainsi de suite ay ay ay ay ay. surtout premier ministre d'État yàlla dafay gàmm électorat surtout oui non mais. ce qui est intéressant ici c'est le nombre ah am nañu électorat. am nañu aura c'est pas le titre c'est le nombre. am nañu électorat am nañu aura am nañu benn valeur ajoutée bu ñu indi. parce que mën na am des indécis yoo xam ne bu ñu gisee certains ministres parmi nous. les rassure. c'est extrêmement important vu sur cet angle plus maintenant des mouvements et je ne parle pas nag des mouvements locaux yi nga xam ne ñi ngi adhéré dans nos coordinations mhm. parce que ñun nos coordinations ont été déjà mise en place ñu ngay liggéey campagne bi ñuy wax ni xëy na Dakar nii rek la ñuy fës gaz et cetera mais mhm. dans tout tout tous les autres départements gars yi ñu ngi wër di def campagne de proximité bo am solo parce que li am solo mooy mhm. lu président wax président Ousmane Sonko ni eh, fii la joxañ foofu la gars yi di xool ba gis leneen wala ba mu wax leneen ne mm-hmm. Bassirou Diomaye fay mooy suñu candidat mm-hmm. on est en train de travailler pour une victoire éclatante mm-hmm. dès le premier tour oui. est-ce que à partir de ce moment oui. benn objet obligation la ñu am mooy xeex ngir processus électoral bi leer ngir fichier électoral bi leer ngir éviter hold up électoral. parce que justement parce que li tax moo am importance. li tax on ne dort pas sur nos lauriers. Mhm. c'est-à-dire que même su dee jàpp nañ ne victoire bi leer na su élection yi jaaree yoon du tere ñu fagaru. Mhm. du tere ñu vigilant fexe ba. sàcc du am xam nga lu tax. la la bala bala ngay ñëw rek. yaa ngi ne victoire bi leer na su élection yi jaaree ci yoon. waaw lan mooy tere élection yi jaar ci yoon. lan mooy tere doxalinu DGE euh, benn. direction générale des élections. di war a organiser élection yi. Mhm. teeyul xel ci ni mu doxale ci mbirum parrainage bi wër-wër loo mhm. li xew lépp fichier électoral. Mhm. kan moo war saytu régulariser réguler élection yi du Sénat. Mhm. Ah, mu génne communiqué am nañu moom amul fichier bi bu baax. le fichier actualisé. Ah, mais loolu problème bi mooy ba ca 2022 mooy mooy problème bi Sénat. Mhm. daaf mënuñu wax ban fichier la ñu utiliser. candidat yi ñu fichier. mais à partir de ce moment. Mhm. ban fichier la ñuy demee élection. lu nekk ca fichier ba. fichier boo xam ne dañ ko indi ne dañ ciy contrôler parrainage lu mat neuf cent personnes neuf cent mille personnes nekkuñu fa am na sax ñu naan ëpp na am ñu naan sax d'autres euh, euh, euh, d'autres d'autres maanaam mhm. ñeneen ñoo xam ne sax xëy na nar nañoo voté te waruñoo voté ñu ñuy préparé yu kenn xamul donc y a beaucoup de de rumeurs yi daw yoo xam ne tee na xel mais li nga xam ne mooy les faits mooy neuf cent mille électeurs yoo xam ne ci entre candidats recalés yeeg même ñi ci ñuy jàll identifié nañ ko ñoo xam ne dañuy yor seen ay carte pare ne nit joxe numéro carte électeur bi signe ñu ne ko nekkoo ci fichier électoral bi ba ci ay candidats yu nekkul ci fichier électoral mhm. léegi fichier électoral boobu noonu xam nga loolu lan la mën a firnde mhm. mooy ces neuf cent mille la ñëpp xam na ne opposition bi lañ lañ lañ pare ne donc Mhm. parce que ñoom seen candidat euh, parrainage élu la jël. oui waa léegi. parrainage élu mais dañ la woon ne 3 millions et quelques parrain denc ko. fii ci Mermoz waaw non bàyyi ma expliquer rek. 900000 mhm. yi ñu xàppati ci fichier bi. Mhm. c' est mille de moyens pour nous. pourquoi pour vous. opposition je parle pas de. Diomaye oui, opposition c' est 900000 sénégalais de ne pas voter. xam nga ne bu ñu la parrainé yow lañ fas yéene à voter. mooy li am parce que parrainage bi ni ñu ko defee la. Mhm. bu doon am naa droit parrainer trois personnes là dina ka dina dina nëbbu. yëf bokk na ci problème parrainage bokk na ci problème yi. Mhm. mais comme ki benn nit nga mën a parrainer waxe sëñ bi doo parrainer koo xamante ne nii. à moins que ñun ñu ne pare nañu pare na leen ñeneen ñi mais ce que je mooy li am solo mooy recalé yooyu noonu yëpp. Mhm. du waa parti au pouvoir opposition la donc lañ fa lañ ca bloqué yëpp. ñoom nag dañoo am suñu. ay ay ay ay fiche maanaam suñu ay données. yi ñu parrainé dañ leen a xam non xam nga la moo tax. Mhm. ku ci nekk ci ñun dafa jël clé dem déposer cinquante huit mille. mais cinquante huit mille quarante candidats ñaata la. bëri na bëri na trop. xam nga ëpp na deux millions. absolument. waaw ñooñu ñoom bu ñu ko jëlee xam ne ñii moom voté luñ ne ndax ñii opposition lañ parrainé. bu ñu leen xàppatee wala ñu jaxase affaire yi ba ñooñu mënuñoo voté loolu du sàcc. oui mais mais c'est bien de faire le le, le constat El Malick mais ma question mooy lu ngeen di def après. constaté ngeen ne am na 900000 yu qui risquent de ne pas voter constaté ngeen ne fichier bi leeru leen parce que Sénat wax na ne yorul le bon fichier en tout cas su ma déggee baax li nga wax mais yéen nga xam ne yéen bëgg a xeex ngir ñu génn fichier électoral bi mettre ko à la disposition de tous les candidats seeni experts saytu ko. Mhm. ñu mën a wax ne fichier bi baax na wala baaxul bu dee baaxul ñu taxaw ne baaxul wut ay solution parce que tout simplement mhm. dañu joxul yenn garanti que ne fas fas yéene ñoo organiser élection yu leer ndax ni DGE comporté woo durant parrainage bi mhm. ndax Sénat mi ne moom yorul fichier bu baax bi mu yor actualiser wuñu ko te jamono jii nga xam ne fichier bi waroon na nekk en ligne nit ki mën a jël dem dugal carte am vérifier comme ni ñu ko daan defee ay jamono mhm. ñu gaawtu ñoom désactiver seen site xaw ma génn fichier bi kenn mënul vérifier. ba léegi nii kenn mënul vérifier. bu bu dee activé waat nañ ko xëy na ñu wax ma ko man yeguma ko à partir de ce moment mais yaa di fulu dafa am. Mhm. léegi nag leneen li mooy appel la envers l' administration territoriale et préfet yeeg sous préfet yi. état lañ fi nekkal. parce que suñu ay responsable di dem di déposer ay liste mandataire ak plénipotentiaire ñu leen di wër-wër loog di leen dàq ak ñoo jëriñu tey ak non bi ñoom kañ la ñuy topp ay naan non loi lii la wax nangam nangam alors que mhm. lancé woon nañ affaire yi joxe nañ date yi ñi ngi ci nekkoon comme ñoom dañoo xamoon di conseil constitutionnel di décider wala ñeneen décider fii ku fi état teg ñi lay fay ak suñuy lémpo mhm. ngay préfet ngay sous préfet. da nga war a tënku ci loi nga war a doxal mbir yi mu leer. Mhm. nga nekk fa di def naka su dul noonu wala di jàppal tànk benn leader politique wala nangam. on a demandé à tous nos responsables de relever tous les noms et les identités ëllëg nguur gi dina changer mais mais mais mais mais du ñu fayu de du ñu fayu mhm. mais y aura des sanctions comme négatives parce que nag mhm. boo fi nekkee ngir état da nga fi war a nekk ngir état nekkoo fi ngir parti ah, eh. ñun sant ñu ku ñu faral mhm. sant ñu ku ñu defal faveur dañu sant rek ku appliquer yoon donc nag ku doxalee neneen dul noonu loola ca fekk nga xam ne yaa ko yaa yaa ko góob. El na lu ñuy reprocher les les partis d' opposition wala les candidats de l' opposition en général mooy mën nañu am nit mën nañu wax mën nañu def lépp mais liggéey bi nga xam ne dëgg moom la le contrôle du processus électoral laaj duñ ko def euh, là. Euh, bis bu ñu jàppee date euh, il va falloir trouver des représentants je dis pas dans les centres de vote mais dans chaque bureau de vote est-ce que au niveau de votre coalition jël ngeen les dispositions qu'il pour avoir des représentants mais vraiment de bons représentants ci les les différents bureaux de vote du Sénégal. bien avant la ñu matal les plus de quinze mille vingt neuf bureaux de vote. ñu ngeen wóolu ñoo xam ne kenn du jaar ci ginnaaw. des militants. d' accord. bu yàgg lépp a mat dañ doon déposé kay ñu ne ñu du ngeen déposé. Mhm. parce que xam nañu ne obligation bi ñu am ñun mooy sécuriser le vote mais gagné bi moom. Mhm. tege na boor. te ñoom xam nañ ko. bu bu ngeen sécuriser la le vote mën leen a gagné. moo tax nag man ne la obligation bi ñu am mooy moo tax coow li li bi bëri yëpp xeex bi di tàng yëpp. suñu commission électorale ma leen di jaajëfal bu baax a baax ils ont fait mais un travail acharné extraordinaire pour couvrir tous les bureaux de vote si et de la diaspora je dis bien mm-hmm. donc ñun coalition Diomaye on couvre tous les bureaux de vote léegi yeneen coalition yi bu ñu defee la même chose mhm. on sera en supériorité numérique en termes de transparence d'accord mënul ak càcc mënu fa am par contre mhm. su fekkente ne nag dañoo def de sorte que waa Touba bëgg a voté mënuñoo voté ndax bureau yi jaxasoo na wala am na ñu seen tour nekkul foofu waa Ziguinchor bëgg a voté mënuñoo voté waa Dakar parce que zone yi nga xam ne xam na ne tu les gagnes pratiquement tu gagnes l'élection mhm. léegi nag jéem a xool fu ñuy defee seen ay remplissage loolu moom du ko nangu. justement yaa ngi wax wa wa waa Touba bëgg a voté ñu ne leen duggeen ngeen am na ñu signalé des cas ñoo xam ne dañu déplacé bureau yi ñu waroon a voté yóbbu leen ci yeneen bureau mais boo demee tey dans la dans la diaspora sénégalais yu bari li ñuy wax mooy euh, lieu de vote yi ñu doon voté dañu leen fa déplace yóbbu leen ci yeneen moo tax ma ne la euh, processus électoral bi dañ koo def parce que yow une victoire technique. mais oui parce que bi nga xam ne ñemewoo campagne. Mm-hmm. ñeme woo wax. Ah, say say nit sax faraluñ la. mais nga am confiance que ni da nga war a dem élection yow parce que xëy na assuré nañ la une victoire technique man loolu laa koy jàppee loolu nag moo dul am ci mim réew. ah oui ah non non non non lan ngeen ci mun. sénégalais yi ak su ne ko bëgg assuré une victoire technique rek sénégalais yi. Mhm. ñu ngi suivre communauté internationale bi mu ngi suivre. campagne bi dina leer vote bi dina leer les sénégalais ne peuvent pas se lever massivement gis nga li xew barki démb démb ci marche aar sunu élection bi ma leen di féliciter de passage ñëpp wane seen péete mu leer que ni Sénégal gi ñu bëgg nii lañ bëgg mu mel ba aspirer à un changement kee moom ñëw ne candidat de la continuité la gars yi bàyyi ko fa ñëw ci changement bi ñëpp gis engouement bi ci am ñëpp gis parrainage yi ni mu demee. Mhm. yow campagne ñeme woo campagne say nit wóolu wuñu la ña nga la doon sax attaqué bu seen pexe sotti woon xëy na yow ña nga lay jugé heure bi <laughs> ah oui fan ngay jaar ba gagné. mais mais est-ce que est-ce que. mënuloo so mënoo mënoo la sàcc la la force de Benno et de son candidat est xeebu leen ko. te wolof nee na xeeb sa xawma sa xal mu lakk sa dàgg. su ma la waxoon de reste nombre responsable Benno yoo xam ne ñi ngi adhéré dans toutes nos coordinations. donc ah oui lu leer laa lay wax na ça c'est la propagande rek El Malick. non moo ci mujj. personnellement man Benno adhéré si. Diomaye 2024 mais parce que ñoom Macky Sall lañ doon àndal te Macky Sall bokkatul wóoluwuñ seen candidat loolu kay ñëpp nangu nañ ko am na ñoo xam ne nag dañoo toog banque seen loxo. wax fa dëgg yàlla nag sëñ bi. Mm-hmm, mm-hmm. xoolal ñen ñoo leen di représenté ci plateau yi rek. ana ah, ana yi daan mu jafe <laughs> xam nga la moo tax moo tax ma ne la. Mm-hmm. bu ñu fi caaxaan mukk bañaan dañuy forcer forcer victoire foofu noonu loolu moom mënul nekk te askan wi du ko nangu. lu ngeen ci mën. askan wi du ko nangu. vote et sécuriser le vote. toog toogaanu bureau de vote yi ba ñu délibéré dara du rëcc. d'accord alors El waaye laataa loolu. càmbar fichier bi. càmbar fichier bi dina ci am solo seen candidat mooy Bassirou Diomaye Faye mhm. le conseil constitutionnel nee na président Macky Sall le 2 avril lay jeex. Mhm. duñ ko yokk duñ ko wàññi. Mhm. donc il faudra ñu am président avant le 2 avril. si jamais. su fekkee ne yéen yéen a yéen a gagné. Bassirou Diomaye président de la République du Sénégal El nan ngeen nar a gouverner Sénégal. sa question bi nag moom yéeme na de. cest lu lu lu poste ministériel yu bëri war a répondre <laughs> lu mouvement des cadres yëpp liggéey oui moom nga bëgg man ma essayons de de de simplifier pour y aller étape par étape si bu ngeen gañee en deux mille euh, on est en dans les semaines qui viennent bul wax léegi bu ngeen gagné neel à partir du 3 avril. à partir nan ngeen di gouverner parce que gagné bi moom incha allah rabi leer na. oui est-ce que Diomaye président du ñu am un sénégalais président de la république ba pare am patron ci réew mi muy Ousmane ko Ah, mais loolu est-ce que c'est un problème. c'est la question que je pose. non c'est pas un problème dans plusieurs pays am na fa régime parlementaire yi am nañ fa am na pays yoo xam ne premier ministre bi. nu ngeen bëgg changer la nature du régime au Sénégal non ne change pas on ne change pas. mais euh, euh, euh, ça change rien ils vont gouverner ensemble. Mhm. loolu ça nee naa la Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye. est-ce que. je vais essayer de simplifier encore une fois comme bëggoo dégg wax est-ce que Diomaye mën na nekk président au Sénégal Ousmane Sonko nekk son premier ministre. loolu ñoom bu ñuy waxtaanee la mais pourquoi pas. comme pas comme aussi président Ousmane Sonko mën na nekk au-dessus de la mêlée di ko di ko di ko conseiller. di ko di di un président coaché non non di ko conseiller j'ai bien dit président yëpp am coach ah. ils tous coachés. Mm-hmm. lu ne mën naa nekk scénario bu ne mën naa nekk mhm. li am solo ba am solo mooy mhm. projet bi na gagné ba pare ñun léegi suñu pootum biir dinañ xam nuñ koy gérer. ah mais du pootum biir su boobaa affaire sénégalais yi la. waaw mais quand je dis quand je dis pootum biir mooy quand je dis pootum quand je dis pootum biir mooy ndax président Ousmane Sonko day nekk premier ministre. wala ndax du nekk premier ministre. wala ndax day nekk président assemblée nationale. wala ndax du ko nekk. wala ndax day leneen ak leneen ak leneen mooy am. Mhm. waaye li ëpp solo mooy. Mhm. nañu gagné. waaw ah, parce que su ngeen gagné wu loolu. bala nga naan naam ne fa. yaa ngi comprendre. Mhm. loolu mooy li nga xam ne moo ëpp solo. bu ñu gagné. dafa am benn projet bu ñuy jaay sénégalais. Mhm. na naa ñëw ci projet bi ak li mu a mais su ngeen su ngeen gagné El Malick wax nga sànq ne euh, la coalition Diomaye président am na 60 mouvements partis politiques 65 mouvements partis politiques ay personnalités yu bokk et que la liste n'est pas euh, fermée am na ñeneen ñu nar a ñëw alors. ñu bari dañ naan ça rappelle un peu CAP 21 du temps de Wade wala Benno avec euh, Macky Sall euh, est-ce que du du ñu duggaat ci même nature régime boo xam ne un président et la élu mais il va falloir ñi bokk ci coalition bi yëpp ku ci nekk mu jox la dara partage du gato en fait. non mënul nekk partage du gato mhm. pour deux raisons. benn bi mooy dañu indi ñun xëy na comme ni ñee di waxee France ak yooyu cinquième république et cetera. Mhm. ñun dañu indi système bu bees donc on travail sur les systèmes d'abord mais on ne travail pas en fonction des hommes d'accord xam nga loolu mooy différence bi di euh, pour satisfaire clientèle politique wala nit ngay créer ay postes en fonction de ça déedéet boo ñëwee da ngay teg sa ossature ne man nii laa fas yéenaa te suñu programme dañ ko ci def mu leer nañ mhm. nii la ñu defee Euh, euh, euh, gouvernement bi nii lañ ko bëgg a constituer mhm. nii la ñu bëgg découper nii la ñu direction yi nii lañ koy organiser système bii la ñu teg mhm. justice bi nii lañ koy doxalee parlement bi nii lañ koy defaree mode élection parlement bi nii lañ koy jaarale mhm. et à partir de sa moment loolu bu tegoo ba pare ñu xool fa ca nekk kan lañu jàpp ne moo gën a yelloo pour yor ko Ah, pour mu dox xaaral rek jàppale wuñu leen pour après toog ci touche bi ah. xaaral non kenn waxul toog ci touche bi. Mhm. président de la république. mais du premier jour. jusqu'à jusqu'au dernier jour de son mandat mais chaque semaine presque mu nommé. Mhm. Macky Sall ba léegi mi ngi nommé. Euh, euh, ce rien ci 65 donc encore une fois c'est pas ça le problème. Mhm. le problème c'est est-ce que poste yi teg nit ñi fay teg. ñoo xamante ne la the right man at the right place. Mhm. est-ce que ñu ngi tànn les hommes qu'il faut pour. en tout projet. parce que mhm. ñun kenn la ñuy rendre compte de. Mhm. mooy askan wi te xaar attente bi ñu am ci ñun foo ko natt weesu na ko à partir de ce moment benn nit mere ma moo ma gënal askan wi di ma mere moo tax bu ñuy tànn dañuy tànn. en fonction des compétence te jàpp na ne ñi ñëw ci coalition Diomaye président yëpp xam nañu loolu si signé nañu charte d'adhésion leeral nañ ko pour mhm. wone que ni kat benn projet idéal moom moo ñu tax a jóg mooy Sénégal mhm. jëm kanam Sénégal gën a ñoŋ ni ñu doxalee réew mi mhm. ñu soppi ko ainsi de suite à partir de ce moment gisuma ban problème moo mën a am alors euh, gisuma ban problème moo mën a am mais wax nga sànq sa biir wax nga ne espoir bi sénégalais yi am ci yéen foo ko nattu weesu na ko. El su ngeen gisee xale yi génne prison bërki dem ku ci génn takk bracelet bi nga takk nga yaakaar ne day am regret wala dara mu ne le combat continue ah, nga gis xale yi ci mbedd mi. alkaati yi di leen gazé di leen du boo boo discuter ak sénégalais fii ba États-Unis c'est pratiquement le même discours est-ce que yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci bopp Pastef parfois vous n'avez pas peur de prendre le pouvoir et cette euh, cette attente là. loolu day am. loolu mën mën xëy na mën na bañ a ñàkk mais nag wax dëgg yàlla ñett mooy tax. Euh, du ñu am crainte boobu ngay wax. waaye nag lu ñuy bàyyi xel bu baax la. benn bi mooy yaqin bi ñu am yéene ak bëgg bi ñu bëgg réew mi ci liggéeyal ko doon ay surgay askan wi. Mhm. beneen bi mooy projet bi nga xam ne dañ cee liggéey. togg ko gëm ne lii moo mën a soppi Sénégal mhm. beneen ba ca topp mooy yorin gi doxalin gi doxalin à partir de ce moment mhm. parce que quand tu des hommes de véritables patriotes mhm. ñi nga xam ne ce qui les intéresse c'est pas ñoom le le rang wala le rôle qu'il doit euh, jouer mais rang ak position wu seen réew à travers le monde aji bëgg réew yooyu mhm. bu ñu amee benn projet bu leer vision que ni lii mooy feuille de bi fii la ñuy jaar ba pare doxalin wi ñoŋ doxalin wi sell te nag wax fa dëgg yàlla mhm. xëy na da di ma wax ne dimension yi bokkul waaye fi ñu jaaragum ñu ngi koy wane xam nga lu tax mhm. président Ousmane Sonko législature am Sénégal yëpp nangu nañ ne il a été un excellent représentant du peuple un excellent député ba pare wane désintéressement total séddale salaire am mhm. di xeex ngir ñu wàññi sax euh, euh, yi ñuy jox député yi avantage yu mhm. suñu député yii mhm. pareil gis ngeen seen taxawaay ci assemblée nationale lépp lu dëppoowul a bëgg-bëggu askan wi taxaw nañ xeex ko ba ay gendarmerie di leen fa génne mais suñu maire yi mhm. am na suñoo xam ne jàpp gin leen jàpp tëj leen sax c'était juste pour ñu bañ a def résultat mais système la ñu teg moo tax seen maire yëpp continuer di dox maire yëpp malgré Jami Sané le maire à Kër Massar Nord sud waaw mais loolu mais li am solo mooy les les élèves équipe yi ñu tànnoon teg ko fa ak mhm. vision yeeg yooyu mi ngi wéy di dox mhm. parcelle noonu Padoa noonu suñu maire yi ñu jàppoon xam nga bari na mais ñoom ñëpp demal xool seen gestion nit ñi nañu dem gëstu Thiès Nord la fa Birame Souleye nekk di liggéey ak ci doxalin gu sel nañu dem gëstu parcelle Ziguinchor kañ lañ tëj président Ousmane Sonko ma ngay continuer di dox normalement mhm. ainsi de suite loolu day wone ne lañuy woote ñi ngi ci mhm. te looloo tax askan wi gën ñu jox bopp oui El am na euh, loo xam ne ñu bari wax nañ ne xëy na bu Ousmane Sonko nekkoon euh, président wu Sénégal moom dina ci mën dara nit la koo xam ne quand même il faut lui reconnaître ça ñi mu àndal su leen woowee ne leen ñëw ñooy def nangam ñu ànd def koog moom euh, bu wootee nañu ñu contrat de confiance contrat de confiance est-ce que ëllëg su si si vous êtes pouvoir yaakaar nga ne li ñuy woowee citoyenneté ci réew mi dina bokk ci ngeen xam ne man ngeen ko liggéeyaat. xëy na da nga lire benn pàcc ci suñu programme. mais dañ ci dañ ci miser bu baax a baax a <laughs> xam nga lu tax président Ousmane Sonko looloo tax. <laughs> malgré maigre revenu yi mais yi Ziguinchor di am. Mhm. venant de l' état mu nekk di réussir li mu réussir gis nga bi mu taxawalee ces euh, dix euh, grands chantiers. Mhm. ci lañ ne ko doo ko fi yekke e fan la compté woon financement participatif. ci waa Ziguinchor. ci waa Ziguinchor la muy def yëpp. lu muy lijjanti la lu ay bonne volonté di joxe la li tax Ziguinchor ren amul inondation curage bi ñu def yëpp ay bonne volonté ko def du lu mu yëkkati xaalis fay des patriotes nettoyage dëkk bi Ziguinchor set éclairage et cetera la même chose la Birame nekk di def Thiès Nord la même chose la Maïmouna di def Patte la même chose moo ne la Bilal doon def Kër Massar la même chose euh, euh, Jamil Sané des démarche de partenaires gestion transparente stricte léegi nag loolu yëpp su amee. Mhm. bénéfice la tey yoonu murit la moo tax mu am doole. ndigal li kenn ki ñëpp tënku ne. boo këru tarixa yëpp bu ñu bëggee tabax. absolument xam nga dafa am contrat de confiance bu am. Mhm. xam nga boo gisee jumaay Tiwaawan ji xam ne. du ay benn sëriñ moo ko tabax wala benn nit. wala nangam parce que parce que joxe xaalis xam na ne sëriñ Babacar Sy Mansour ci jumaa ji leen koy defal. merci ñiy jox xaalis sëriñ Mountakha xam na ne ci jumaa ji leen koy defal wala ci Masaalikul Jinaan église bi naka noonu. église bi naka noonu euh, contrat de confiance. comment boobu avec des hommes politiques yoo xam ne duñu la wax tey bu ñu wax la le contraire. xam nga la mooy différence bi. Mhm. président Sonko da ko waxoon l'homme politique c'est un mhm. ngay dem nga xool jaar jaar ñooñu fi ñu jaar ci impôt et domaine mhm. yow xalaat nga ne président Ousmane Sonko ci li mu rëcc Basiru wala Biram mënoon na ci rëcc bu doon do yor doxalul doxalin wu sel ca impôt domaine kon heure bii duñ leen jàpp ci ay post Facebook de hmm. dañ leen di euh, jàpp ba pare jaxal see leen ak àdduna <laughs> mais ñun ñii tamit ci hmm. suñuy société yi ñu jaar hmm. ñu ngay góor góorlu di doxal doxalin wu sel à partir de sa moment contrat de confiance boobu bu amee président Ousmane Sonko bu waxee nii loolu président Macky Sall bëggoon a def te xëy na sottiwul. Mhm. mooy set setal yeeg affaire yooyu. yóbbu xale yi ci mbay mi par exemple. bu yóbbu xale yi ci mbay mi. président Sonko bu leen waxee ne lii dañ koy def xale yi dinañ daw def ko parce que xam na ne ki leen ko wax lu mu gëm la te lu muy def la parce que ji na leen ko. te mhm. contrat de confiance bi am na. ba pare c'est important alors euh, il faut ñu ñu gérer temps parce que waxtu bi day daw lu bëree bari beneen boo xam ne suñ fi toogee ba jóg waxuñu ci euh, xam naa dinañu ko laaj mooy. le PASTEF wala le projet PASTEF au pouvoir nan ngeen mën a nan ngeen nar a gérer li ñuy woowee justice au Sénégal parce que euh, bu ñuy wax ñu souffrir ci justice pendant ces dernières années forcément dinañ ci wax waa PASTEF. Euh, jàpp naa ni euh, suñu cadre yi wax dëgg yàlla liggéey nañ ci programme bu mucc ay mm-hmm. boo xam ni. jour bi ñu ko waroon a présenté ba annoncé ko. Mhm. ci la jour boobu ci la Macky Sall tax gàntal élection yi veille campagne si ngeen ko fàttali ko samedi boobu. Mhm. ñu préparé woon lépp. Mhm. ah ñu taxaw xaarandi ko mais vraiment programme la boo xam ne. du bassiru moo tëju bindu wala Ousmane moo tëju bind président Sonko déedéet c'est des spécialistes de tout bord de tout domaine. si et surtout de la diaspora aussi ñoo ci liggéey liggéey bu mucc ayib ci programme bi des centaines de pages mm-hmm. wax fi ñu bëgg a jaar naka lañ koy defee et surtout le plus important projet lu lu ñu teg fan la ñuy jëlee financement bi mm-hmm. mode de financement bi parce que nag defar programme yomb na de waaye programme boobu wax ne dinaa def lii dinaa mhm. def lii dinaa def lii mhm. noo koy defee ak fooy jëlee la nga koy defee parce que leb moom yomb na yaakaar naa lépp moo ñu indi ci situation bii ñu nekk. Mhm. donc danga war a trouver des alternatives. du pouvoir dañuy wax a une bonne signature donc lépp da koy yomb. <laughs> waaw baax na à partir de ce moment ñun ñu jàpp ne bu ñu ñëwee ci wàllum justice. dafa am yoo xam ne soxalul sax réinventer la rue la roue. parce que boo jëlee assise nationale yi nga xam ne ñenn si ñun dañ ci participer woon ñu mel ni ñoom président Ousmane Sonko. oui dafa am liggéey bu mucc ay bu mu ci def mais ci institution yi rek surtout. Mhm. mais CNRI yi. dañu jël yooyu yëpp ñu jël ko ñun. Mhm. liggéey ci boole ko ak suñu vision euh, mën ko adopté ba nga xam ne nii la ñu jàppee ne. su ñu ko defee séparation des pouvoirs. dina am de la CNRA mi ngi bëgg a nag te àdduna ngi moo tax ma ne la dañ ko jël liggéey ci. Mhm. tëggaat ko boole kook ñun programme bi président Ousmane Sonko amoon jot na deux mille euh, jot na. Mhm. li ñëpp bokk ñëpp jot ci bu deux mille dix neuf ñu actualiser lépp yokkaat ci nag de éléments yu bees par rapport ak expérience yu ñu dund. expérience yi ñu dund wane na ñu ne ñun bu ñu te bu ñu yoree réew mi dina am juge des libertés. juge des libertés. ah ndax parce looloo tuuma bu amoon. yii ñu ñu ñu tëj ñu bëri génne nañ leen. en parlant de de de ñi ñu tëj ñu bëri ñu jeexal ñu ñu boucler ci loolu d'ailleurs est-ce que euh, si jamais euh, à partir du 3 avril le Pastef nekk au pouvoir xale yi nga xam ne ñoo génn kaso ñi am ay ay ay laago ñi nga xam ne seen mbokk dafa faatu di de de mars 2021 à aujourd'hui nan ngeen nar a def ak ñoom est-ce que euh, day nekk genre. na réconciliation nationale nañu nañu baal ñëpp réew mi àndaat wala il faut il faut que les euh, les les responsables rendent compte yaa ngi may may ma rebondir ci parce que mhm. c'est extrêmement important mhm. man dama jàpp ne en dehors de, du fait de libérer tous ces détenus là oui. président Macky Sall ñu ba léegi président Macky Sall mhm. daf leen war a dédommager kenn par kenn mais Moustapha kuy liggéey yor njabootam yor waa këram nga téye ko huit mois un xëy na ko dama ñibbi ab loolu yenoon na maanaam ko xaj nag ki nga xam ne dafa yor doomam yaakaar ko lan di njeeju tunkara ainsi de suite mhm. ñi door leen bal ñu faatu seen njaboot ñàkk xanaa lum mu bon bon bon war nga jaare ji ñun ñu ngi koy def en tant que parti mais jàpp naa ne gouvernement bi war na trouver les mécanismes parce que loolu yëpp dafa bokk ci processus de décrispation et de pacification en dehors du fait de libérer tous ces détenus là ñu man leen a au moins parce que li ñu leen teg moom mënuñ leen koo fay loolu dama bëgg ma leen nit tamit ku génn àdduna kenn munu koo remplacer si Macky Sall ne le fait pas jusqu'à ce mu jugee ci pouvoir bi Euh, yéen ngeen remplacer leen. mais justice se fera bu ñu ñëwee justice se fera. Euh, euh, maa doon règlement de compte non non du question règlement de compte xam nga tamit. oui justice. Mhm. réforme yi ñu bëgg def ñun justice dina def liggéeyam réforme yi ñu bëgg a def. Mhm. justice dina def liggéeyam koo ci xool programme am nag dina ne su ma ñëwee damay couper cordon ombilical bi. justice et cetera. mooy li gën a facile pour les hommes bi voilà. da ngay teg mhm. du ñu nekk ci état des juges mais gis nga waa justice ñoo la gën a xam jàngoro justice ñoom euh, Téliko ñoo ñëpp taxaw nañ. ci wax ça veut dire qu'il faudra impliquer ah non bien bien sûr les les, les acteurs de la justice. absolument les acteurs de la justice. ñu tëgg loo xamante ne nii. Mhm. Sénégal nit ñi dinañ amaat confiance yoon parce que contrat de confiance bi ñuy wax. ça mhm. doit être dans tous les secteurs. parce que confiance ak justice moom xam nga ne tumuranke na ci mim réew amul à partir de ce moment ñoom ñi def seen liggéey parce que tamit tey euh, ay y a des justice moo koy moo koy kii mhm. tous ces détenus là mën nañ déposer ay plainte euh, ñi ñu rey ñi ñu blessé ñi ñu mhm. rey seen i doom mën nañ déposer ay plainte bu boobaa justice mooy def liggéeyam xëy na nag comme ni ma koy waxee su fekkente ne ñii ñu jiite delloo si nañ seen xel mhm. à commencer par le président Macky Sall. Mhm. libérer tous ces détenus. Mhm. def la mu war lan teg ñoom par exemple. Euh, yaa ngi bëgg indi benn débat. Ah, ah, parce que dafa am benn journal bu xëy. ni amnistie. oui rek nit ñi topp ci dóor amnistie. Mhm. annoncé woon sax ne dinañ ci wax ci conseil des ministres. <laughs> man ma ne bi mu amee nag ñu bëri woo ñu waru leen nangu amnistie nangam nangam man waa yéen balaa ngay wax nit ki waroon nangu amnistie xanaa déjà benn nga xool ndax amnistie am na mhm. ñaar xanaa amnistie bu amee dinañ ko yóbbu assemblée waay suñuy député dinañ ko gis xool la ca nekk ba xam dañ koy voté wala waa léegi bu loi amnistie ñëwoon mhm. daan ne tous les détenus politiques là faase nañu li ñu leen doon toppee dañ leen war a dédommager nangam nangam doo ko voté mhm. li ma d'accord kay mooy li ma d'accord mooy bu dee dafa ñëw ñu naan no les les faits les crimes économiques mhm. ay covid ak ñoom seen ak yi jot a xew ak les crimes de sang mhm. yëpp dañ ko ci sëll xaale ngeen blanc ah bu boobaa nag mhm. nañ ko daan defee na woon fa woon taxaw ne leen lii d'accorduñ ci suñuy député du ñu ko wote dinañ ko attaqué d'accord parce que nag dafa am loo xamante ne nii ñu moomuñu ko askan week moom booy maye da ngay maye loo moom. d'accord alors waxtu wi euh, daanaka euh, léegi mu mu jeex wala soriwul jeex et dama ko annoncé woon c'est c'est une promesse euh, bu ma que je tiens à respecter mooy ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers la chaîne YouTube de Walfadjri parce que cette émission là initialement <laughs> c'était pour la chaîne YouTube de de Walfadjri ñoom Moustapha Niass ak toute l'équipe euh, ils sont plus de trente mille à nous suivre en direct euh, El Malick. Mhm. je pourrais pas question yi nga xam ne yëpp moom lañ day poser fii ma man la ko yeggee c'est pas possible sinon fii la ñuy julli fajar di fekk. mais ce mhm. qu'on va faire mooy euh, euh, l'équipe a fait une sélection de quelques question euh, Assane Gueye moo ko def ak Moustapha Niass ces questions là moom laa yor devant moi je vais les lire ni nga xamee ne noonu laa ko gisee. Mhm. après yow yaay xool noo koy noo koy tontoo alors bi ci njëkk kii mi ngi tuddee boppam My World Humanity. mu ne loolu tax defe naa waxoon nga ci sax mu ne pourquoi les recalés s'incrustent dans le dans la date du scrutin alors qu'ils sont éliminés et que le conseil à a confirmé l'élection avec les vingt candidats muy pourquoi ñi nga xam ne ñoom bokkatuñ ci élection parce que conseil constitutionnel nee na vingt candidats yi c'est définitif pourquoi ñoom ñu wax ci affaire date ça c'est la première question. waaw xam nga fii moom hmm. wax dëgg yàlla ñun on n'est pas on n'est pas là pour dire que diw war na wax diw warul wax. ñun li ñu hmm. wax la ñu mën a tënk. Hmm. dañoo génn communiqué wax mu leer. dajj fang. fang dajj nit ñi gis. Mhm. muy position officielle coalition Diomaye président. mooy avant le deux. mooy na ñu respecté. Mhm. constitution bi nañu respecté li conseil constitutionnel wax. te mhm. président Macky Sall neen dina ko respecté. léegi nag à partir de ce moment. oui c'est de bon guerre. recalé yi jàpp na xëy na. bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu yokkee ñu yokkee wala report am. ñu reprendre processus wala processus bi. parce que tamit nag. bu ñu fàtte ne ñoom it dañoo injustice la ñuy dund. mais am na ci rëkkale yoo xam ne bu ñu reprendre woon processus bi dix mille fois tamit duñ bokk. d'accord naa moo tax ñu war a moo tax lañ doon wax ñun. Mhm. Euh, histoire jox ñu raison. dañu waxoon ne loi parrainage bi ni ñu ko tëggee baaxul. Mhm. je donne un exemple tey bu fekkoonte ne parrainage dañ ne balaa ngay jël balaa ngay retirer fiche parrainage da ngay déposer caution. Mhm. kon doo am deux cent soixante cinq. d'accord alors El Malick bu fekkoonte ne dañ ne dañ ne pour ñu delloo la caution bi foog nga am temps de pare. Euh, ñu ñu bari dem. <laughs> ak yu bëri yuñ mën a waxtaanee la moo tax ma ne à partir de ce moment mhm. euh, li am solo mooy nit koo xam ne dafa jàpp ne dafa dund injustice mhm. les recalés et tout ça ñoom mën nañu xool ni ñuy xeexee seen xeex waaye ñun li ñu ëppal solo ñun mhm. suñu xeex mooy wóolu nañ suñu candidat jàpp na ne bu ñu demee élection dinañ gagné. nañu respecté yëf yi. d'accord processus électoral bi leer ñu dem ci élection. Ndiakhate Touré mu ne est-ce que Ousmane Sonko est en bonne santé. macha allah il se porte bien. il se porte bien alhamdulilah mi ngi si jàmm ak salaam. alors kii mi ngi tuddee boppam Gaule ou mu ne euh, lan mooy nekk seen position su fekkee ne Macky Sall dafa wax ne day reporter élection yi au-delà du 2 avril mais Ousmane Sonko dina ci bokk. su boobaa ñu waxtaanee ko rek. xam nga la moo am solo. Mm-hmm. encore une fois euh, ñun dañu rester sur les principes. Mm-hmm. xam nga ñun dañoo waxoon nous sommes contre le report. Mm-hmm. est ce que tere na report am. bu fekkee tant que mu ngi am majorité. Mm-hmm. moo tax mode élection assemblée bi ñu ne dañ koy xool ñun bu ñu ñëwee. Mm-hmm. mais jamono yi falee député. ah oui. bu boobaa di nga am député askan wi doo am député du peuple député du du président président Macky Sall bu fekkente ne def na day reporter. lañu war a xeex ci yoon dinañ ko xeex. d'accord la ca des mbirum askan wi la à partir de ce moment. scénario bu ñëw. Mhm. comme ni ko président Ousmane Sonko defee. pare ngeen. ah ñun li dama ne la. Mhm. fii ci miim réew. élection du fi am. te ñun du ñu am candidat. d'accord alors euh, Abdou Sambou mu ne suuf coalition Diomaye gagné est-ce que. la vérité sera mise sur la table de la justice mooy li ñu doon waxtaani sànq. waaw ah, yaakaar naa tontu naa ci ba pare. d' accord Iba Thiam mu ne euh, pourquoi le journaliste Pape Alé Niang et les autres euh, qui sont sous contrôle judiciaire ne sont pas libérés en enlevant les bracelets électroniques et les autres restrictions parce que ils sont nombreux am na ci ñoo xam ne mënuñu tuki Pape Alé ci la bokk. Euh, son passeport mënu ko jot ba léegi pour mën a génn ci réew mi yow bi ngay ñëw fii fi li nga takk ne wax nga sànq ne ba léegi mënoo dem Jolof yaa ngi tudd sànq Waly Diouf Bodian ak ñu moom juróom lañ ko may ak këram ak ñu bëree bari e, e, est-ce que justement euh, ak lii am nii mënuñu leen a euh, delloo seen i kii ñu dem seen yoon waaw non jàpp naa ne comme ni ñu wéy di di di wax rek mooy mhm. te wax dëgg yàlla fekkente ne ci deux jours génn nañ trois cent cinq xëy na semaine bii dinañ libéré ñi ci des ñëpp on peut à partir de demain mhm. et à partir de ce moment mhm. ñu mën a gis ne benn ci combat yi nga xam ne ñu ngi ko doon mëne mhm. yàlla defal nañu si sutura defal nañu si ndab mooy tous les prisonniers politiques dellu nañ ci seen njaboot des na am na ñu des waaw non loolu laay wax dama ne bu ñu libéré ñi des ñëpp d'accord bu boobaa ñu ci semaine bi waaw à partir de ce moment ñun mën nañ jàpp loolu euh, euh, te loolu la ñuy continuer di xeex ngir ñu liberee tous ces détenus politiques moo xam ñi nga xam ne contrôle judiciaire la mhm. euh, moo xam ñi nga xamante ne dañu am bracelet waaye surtout prioritairement ñi nga xam ne. Mhm. Eh, caabi da leen féete ginnaaw. d'accord alors euh, Bassirou Dieng moom question tontu nga ci léegi mais ma liir ko rek mu xam ne jot nañ ci dafa wax ne est-ce que euh, la coalition Diomaye président président a des dans tous les bureaux de vote y compris les coins les plus reculés du Sénégal pour protéger le vote pour sécuriser la vote wax nga ko sànq alors ñu ñu dem directement ci kii tuddee boppam CRISPA mu ne concernant les bavures policières policiers Sénégal yi. wax dëgg yàlla bu manifestation amee euh, euh, nit ñi defa xale yi ñu bari dañ koy jooy mu ne est-ce que FDS yooyu nga xam ne dañ leen a identifier ne ñoom ñooy les auteurs de ces bavures la si jamais le pouvoir change dem ci seeni loxo dañ leen di poursuivre wala déet. moi ce que j'ai dit. du mhm. du changer c'est-à-dire que ñun mënuñu nekk di xeex. Mhm. émission wu bi ci judiciaire bi. Mhm. ba pare bëgg a ñëw di réitérer la même chose. ce qu'on a c'est très clair. on a un programme qui propose des réformes importantes mmh. sur tous les secteurs dont la justice mm-hmm. suñu ñëwee dinañ ko def ba justice mën a def liggéeyam mm-hmm. képp koo xam ne teg nañ la naka sudul noonu nga dem porter plainte mm-hmm. mu mën a am suite du am kumba am ndey du am kumba amul ndey koo xamante ne ni policier wala nervi wala keneen du euh, def na la lu mu la warul def. Mhm. nga dem porter plainte mais yoon def liggéeyam. encore une fois yi ñu ci identifié et tout euh, d'autant plus que ñun on a fait nos preuves tey. lu loolu lu ñu yàgg a wax la lu ñu yàgg xeex la mhm. injustice bi bi am ci réew mi jaay doole bi am ci réew mi ainsi de suite mhm. ñun ñu nekk victime loolu on est yaakaar na apte et bien préparé à éviter de pareilles situation dans le futur bu ñu jëlee réew mi waaye tamit à réparer les injustices les inéquités ainsi de suite. loolu yëpp ci ci ci suñu programme incha allahu rabbi dinañ ko réaliser. Abdou euh, Badji moom nee na dafa gis benn euh, tweet boo xam ne Mame Birame Wathie moo ko def euh, malheureusement moi j'ai pas vu le le tweet mais daal li mu ci wax nee na dafa gis Mame Birame bind ne Macky Sall dafa renforcer les pouvoirs de de de l'OFNAC. Euh, jox leen pouvoir garde à vue je ne sais pas je pense pas que Mame Birame noonu la ko bindee mais li mu bëgg laaj rek mooy lu Macky Sall di préparer et est-ce que ragalu leen mu dissoudre le conseil constitutionnel. wax dëgg yàlla nit moom euh, mënoo ko mënoo nettali géntu jàmbur. Mhm. <laughs> xam nañ ne scénario yi mën a am bëri na sànq bi ma lay wax ne ñun dañuy comme ni ñu ko doon defee parce que bu ñu liggéeyul woon ci scénario tey du ñu am candidat. dëgg la. Mhm. dissoudre of dissoudre préparé wu ngeen à cette euh, éventualité xaar balaa vey yooyu yëpp ñun wax dëgg yàlla anticiper nañ ci di ci liggéey encore une fois li ma wax benn obligation lañ am ñun. Mhm. mooy présenter au Sénégalais un candidat de manière très lucide. Mhm. situation bu ñëw on fait une analyse lucide xool lan moo gën. Mhm. parce que suñu ko deful woon. lu ñu am Bassirou Diomaye fay tey. président Ousmane Sonko bi nga xam ne ñun ñëpp. Mhm. y compris Bassirou suñu liggéey yëpp. lu ñu nekk di liggéey depuis 2014. Mhm. c'était de le présenter au Sénégalais ñu tànn ko mu jiitalee les destinées de ce pays. Mhm. liñ koy teg di ko ko teg yëpp terewul mu am lucidité wu. ne man ala kulli xaal. projet bi laay jiital. d'accord donc damay am ak damay liggéey ak ñi ma àndal ci ay plan ci ay stratégie moo tax xeex bi jeexagul stratégie yi jeexagul parce que xamaguñu tant que fixé wuñu datu élection bi fi ñu toll nii kenn mënu laa wax nu yëf di deme bu ñu respecté constitution bi bu fekkente ne doxal nañ li li li li euh, nu ñu koy waxee ci euh, conseil constitutionnel encore une fois moo wax ne conseil constitutionnel xëy na mënoon nañu yombalal yëf yi dëgg yàlla fixé date defu ko mhm. Sall dina wax ak candidat yi parce que kenn xamul benn scénario am mënoo dem mën nga dem douze candidats ne la ñoom jekkooku ñu dañoo bëgg ñu reporter looy def man nga dem c'est-à-dire que tellement de choses yoo xamante ne ni mën na xew ëllëg mhm. mais lii ñu am ñun obligation mooy lu ci jaarul yoon ñu xeex ko mhm. askan yépp xam na lii xeex nañ ko mhm. waaye tamit du tere ñuy fagaru ba scénario bu mën di am ñu am candidat mais même si on va au-delà deux comme ni ko euh, waa ji tuddee boppam maam di laajee xam xam am na préparé ngeen pour. pour nous sommes prêts devant tout type de scénario. d'accord waaye. nous some pour le respect strict de la loi. d'accord am na euh, euh, euh, peut-être on aura xëy na si Diomaye Faye sort sort de génn prison d'ici la ñu ñu teg ko fii pour waxtaan ci ci programme am xëy na boobaa moom dina mën a. wax largement ci programme on peut faire des émissions typiquement programme. Eh, eh, mais mais ce serait intéressant mais mais mënoon nañu wax ci mbay mënoon nañu wax ci leen ak leneen. effectivement mais damay damay rek yam ci c'est El Hadj Diop kii kii mu di ça mu ne Moustapha transport. El Malick nan lañ mën a régler le problème du transport au Sénégal fexe ba dakaar dootul nekk benn capital boo xam ne ñëpp fi la ñuy dankalikoo. yaa ngi commencé régler problème bi de. ku xëy suba Ndiaga yi fi lañ jëm si car rapide yi fi lañ jëm si bus yi fi lañ jëm si euh, saxaar gi euh, fi fi la jëm si comment faire pour régler euh, cette question. de du transport xam nga bi ñu lancé bi ñu lancé TER bi. Mhm. ak BRT bi dama taxaw ci émission yi bëri. mën na leen buñ ci yokkoon ay avion taxi sax. problème embouteillage bi réglé wu Dakar. avion taxi Me El Hadj Diouf proposé na ko. waaw non euh, euh, bul yàq émission bi <laughs> problème mu problème mu euh, transport. du jóg au contraire day yokk. te yaakaar naa ne BRT baa ngi koy firndeel. xam nga lu tax. sëriñ bi dañu war a liggéey ci ay phase xëy na am na lu ne këtt lu ne jon lu ñu war a def mais gis nga lii régler problème mu transport fii ci Ndakaar. maanaam ci anam yu wër durable mhm. mooy une bonne politique de décentralisation. créer d'autres villes par exemple. mais nit ñi bu ñu mënee dellu seeni gox dañuy dellu waaye ci yan anam la ñuy delloo ak lan lañ fay fekk. Mhm. soo ñëwee nga nga créer des pôles de développement économique. Mmh. un découpage économique du territoire nga fexe ba le secteur primaire nga moderniser ko. Mhm. Euh, liggéey ko diversifier li nga xamante ne ni mooy les semence et tout moderniser agriculture bi def ay réformes agraires permettre aux paysans ñu mën a am droit ci seen sol bien encadré bien sur di ko mën a utiliser pour en guise de ay hypothèque ak ay yu pour ay garantie pour di mën a am ay financement nga accompagner loolu yëpp fexe ba irrigation bi am fexe ba accès à euh, à l'eau yomb mhm. ainsi de suite di nga permettre tey nga am agriculture boo xam ne <coughs> lépp loo soxla ci réew mi mën nga ko fa bayee parce que mhm. réew mi yàllaa dogal ne lépp fi ñore à partir de ce moment nga moderniser ko mhm. nga am un président comme euh, euh, le président Ousmane Sonko ou comme Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne bu waxee ne askan wi nañu dem dellu ci mbay mi ñu dellu te yaakaar naa Basirou loolu bu ñu ko waxee ñu mën koo gëm gis nañ position bi mu amoon ci ci affaire Ndingler beeg yu ni mel. Mm-hmm. à partir de ce moment nit ñi dinañu nangoo dem retour à la terre. Mm-hmm. mais doo ci yem parce que da ngay da ngay def ay unité de transformation en fonction de chaque pôle lan moo nekk ñoom seen principale activité ak lan moo nekk ci lan la ñu spécialisé wu. Mm-hmm. culture rizière la culture arachide la culture légumière la ainsi de suite. Si tu as des chambres froides, des unités de transformation industrielle, etc., tu crées de la valeur ajoutée. Mmh. Les gens vont y retourner. Ils vont construire dans ces zones-là. Tu es en train de, de, de, de freiner l'exode rural, mais surtout, mmh. retour au bercail. Mhm. bu ko defee nga gën a mën a defar Dakar parce que nit ñi dunduñu Dakar dañuy survivre. Mhm. en réalité. léegi mhm. Euh, loolu day bokk loolu xam nga c'est des solutions yoo xam ne du a court terme. non à long terme la mais fii tamit ci transport bi mais nañ ko waxtaanee. Mhm. mais primo l'histoire des véhicules. Mhm. fii cocktail la la construction. Mhm. si on avait bien appliqué les textes de l'urbanisation wala de l'urbanisme. mais mënoo di tabax ay immeuble te doo tabax ay parking souterrain ñëpp di gaare ci kaw tali yi ak autorité euh, ak trottoir yi ça doit dañ ko war a exiger j'ai remarqué par exemple que dans les grandes villes européennes euh, en tout cas ci seen tabax yu bees yi doo gis mukk immeuble yu taqaloo. xalaatuñu ko il laisse de l'espace euh, pour euh, parking ah, mu am aussi ay payant mu mën a nekk des ressources pour les mairies et cetera. mais Dakar euh, immeuble en am plus finir la. te duñu te xoolal. Hmm. fu ñu war a def garage wala souterrain même ñi tabax seen kër sax duñ def garage pour seen propre oto ndax jàpp na ne loolu mën a nekk magasin bu ñu loué am ci soixante dix mille cent mille par mois. Hmm. donc code yooyu noonu yëpp respecté wuñu ko régulation transport Euh, xam nga. Euh, gis naa ne ñu jeexal gis naa ne ñu ngi di moderniser côté digital bi ak ak contravention yeeg yooyu. ne dañ koy digitaliser j' que dinañ ci yegg. mais tant que réglé wu ñu problème mu CETUD problème mu immatriculation visite technique oto yi. problème mu ci yan anam la ñuy livrer permis yi. problème mu ci naka la ñuy réguler circulation bi. problème mu formé nañu personnel beeg euh, policier yëpp mais jox nañ leen ay batukaay yoo xamante ne nii lii bu ñu ko defee parce que mbir mi soxlawul sori de boo defee ay benchmark dans dans des pays de la sous-région di nga gis ne ñoom réglé nañu seen problème transport. ay camions est-ce que le solution. le train c'est sur le plan peut-être territorial. Mm-hmm. jóge ci gox dem urbain am na. mais gis nga aussi. Mm-hmm. gis nga train yi bu fekkonte ne def nañ ko ba nga mën a jóge fii dakaar dem Saint-Louis. jóge dakaar dem Thiès. jóge Dakar dem Kaolack et cetera. Mm-hmm. ñu bëri dañuy xëy si fii di wàcc di ñibbi. d'accord te loolu bokk na lu ngeen prévoir. mais une toute dernière question El Malick parce que euh, malheureusement les gens buñ commencé boo commencé di kes day yónnee di yónnee di yónnee mais bii je viens de recevoir ça Assane boobu ko yónnee mu ne Mokhtar mooy laaj je ne sais pas de quel Mokhtar il s'agit mu ne est-ce que Sonko est prêt à se ranger derrière Diomaye s'il est élu. waaw ah, Diomaye Sonko du moo tànn Diomaye. Mhm. Diomaye di Sonko. loolu du question. d'accord. donc suñ si si si Diomaye devait président Sonko sera au service de Diomaye xam nga le président Ousmane Sonko. oui nit ñi dama yaakaar ni xam dañ ko réere ba léegi. Mhm. président Ousmane Sonko du nit koo xam ne. Mhm. dafa jàpp ne moom par force dafa war a nekk président. déedéet dafa am yéene bu mu am ci réew mi nit ñee jàpp ne par force daa war a nekk président. c'est ça le contraire jàppul loolu. déedéet à de sa moment. à partir de ce mhm. ci la xamee ne li ëpp solo. mooy le projet. mu prévoir ay plan donc Jomaay yàlla dogal Jomaay plan wu Jomaay jàll. Mhm. te président Ousmane ko ku seetaan euh, vidéo bi mu pré enregistré woon. Mhm. doon wax ci pourquoi le choix de Jomaay question yu bëri dootoo ko posé. d' accord El Malick Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax. man maa lay sant bu baax a baax. jërëjëf. di la ñaanal di ñaanal waa kër gi di leen masawu nag ci coono yi ngeen fi jot a daj yëpp <laughs> yéen sax ngeen bokk ci ñi ngeen libéré de <laughs> ah, parce que xam nga fii laa toogoon ci koor gi ne leen ne leen dinañ bu ngeen moytuwul yéen ñii nii <laughs> eh. bu weesoo Aline Sow ma fa nekkoon yéen ñu si bëri nii bu ngeen moytuwul dinañ leen jàpp ak dinañ leen di dissoudre rek et cetera mais jàpp naa ne dafa am loo xam ne kenn mënu ko di dissoudre parce que man euh, wal kenn mënu ko di dissoudre ak lu mën di xew te eh, heureusement que euh, président Macky Sall revenir ne en tout cas ci décision bi nga xam ne jëloon nañ ko. Mhm. Euh, ñu leen di ñaanal rek encore une fois kër gi di gën a yokk parce que kër yu ni mel soxla nañu ko. Mhm. Euh, ci fii surtout ñun bu yàlla defee ñu jël pouvoir dinañ soxla kër yu ñu mel yi nga xam ne askan wi lañ fi nekkal. Mhm. di ñu jooyanti. incha allah incha allah du eh, ñu def comme comme ñeneen ñi incha allah rabbi wala boobaa ma xam ne rek soppeeku nañu mel na nañu ñëpp te boobaa askan wi jëpp ñu te ñaanuñu yàlla loolu jërëjëf ñaanal sénégalais yëpp nag di encouragé rek ñu semaine bi daal ñi libéré tous les détenus politiques encore une fois mm-hmm. nit ñi mën a dellu président Ousmane Sonko mën a génn mën a campagne Bassirou Diomaye Faye mën a campagne. Mhm. ñu mën a dem ci élection yi yàlla may ñu ndam. di jéggalu bu baax ñi nga xam ne ba fi may waxee Gudel Malick ñi ko ne di ma envoyé seen ay euh, question mais euh, du ma wax naa ne su ma jëlee yëpp fii la ñuy jullee fajar xëy na sax bu def la ak 9h fekk ñu fi en tout cas ñi ngi gërëm euh, toute l' équipe technique bi nga xam ne ñoo bàyyi seen dimanche tey ngir ñëw assurer émission bile caméraman yi Serigne Saliou Bey Pape Samb ak Balde Barke Si Diop ak Mballo ñoom ñoo nekkoon au de la régie di gërëm baax Moustapha Niass mi nekkoon la coordination ak Assane ñu doon dimbali di ñu dajaleel eh, question yi nga xam ne moom lañ doon posé sànq eh, kii di El Malick El Malick jërë nga jëf di wax également ñuy seetaan notamment les différentes euh, euh, les différents camps politiques du Sénégal que ni cet espace reste ouvert pour tout le monde incha allah danañ fexe ñoom ku ci bëgg rek nga ñëw ci ñu mën a waxtaanee Sénégal surtout ci moment yi nga ñu toll nga xam dañu tànn ne nañ ko def de moments de vérité ñu ciy wax li nga xam ne moo jëriñ Sénégal war koo jëmal kanam jërë jëf ba beneen yoon incha allah.